ngalax gu doy gi nga xam ne jox nañ ñu ko réew mi yëpp lekk nañu ngalax réew mi yëpp lekk nañ ngalax kon euh, di ko gërëmee euh, suñu mbokk yi chrétien yooyu nga xam ni vraiment macha allah euh, seen bés bi taaru na seen bés bi rafet na di leen ci gërëm bu baax a baax di leen sant waaye Thérèse SGBS yoof joxoo ma joxoo ma ngalax de Thérèse SGBS Yoff sama ngalax ñëwul maa ngi de la siyaare di ndokkale ñëpp di ziar ñëpp tey nag suñu émission euh, ki nga xam ni moom imam Biram Pouy daf ciy dikat rek ci li nga xam ne moom moo di iftaar ci jàngum arxuraan suñu concours euh, jàngum arxuraan en ligne Ya imam maa ngi de nuyu te di la siyaare euh, di la fay Boubacar Diarra di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi topp émission iftar fi ci ITV di santaat moom borom bi subhanahu wa taala Boubacar comme nga koor gi mi ngi sore ñu ngi ci commencé n'est-ce pas gën a li nga xamante ne mooy mujj bu ngeen xoolee sax ñi seen da nga gis ni weer bi mu commencé décroître on dit le croissant après day décroître ba dem loolu yëpp nag euh, ñi am benn diplôme boo xamante ni Boubacar ñu ngi ko ci yaakaar mooy laallakum tattaqun ce qu'on appelle la crainte référentielle moom mooy diplôme bi nga xamante ni illaa man atallaha bi qalbin salimin mooy lulul ñi nga xamante ne dikkal borom santala ci benn xol ba mucc bépp sikk-sikk boo xamante ni day day gàllankoor dund doomu aadama tax ci la seen concours alxuraan Boubacar mi ngi avancé nit ñi ngi si gën a bokk n'est-ce pas kenn ku nekk mi ngi gën a wane enviem le principe de Tartila nag mooy partout que vous soyez fu ngeen mën a nekk ci àdduna da ngeen di jàng alxuraan deux minutes seen téléphone ngeen envoyé ko jury bi da koy jël daal lay natt bu ko defee nag ci fin d'année bi wala fin du ramadan ñu xool ñi nga xamante ni ñoo gën a jekku téere bi ñu daal leen di teral teral yoo xamante ni ñi ngi ko gàdd ci loosu Boubacar Diallo incha allah daañ ci góorgóorlu bu baax a baax di nuyu bu baax tey siyaare gu wér Cheikh Sall salaamaaleykum Cheikh journaliste maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sadil lisaani nawil janaani safi amani wasid barayi mbokk téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci réew mi ak biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare aman mbégte àndaat ak yenn ci guddig euh, taaru weeru koor di iftaar dañ ko ànd fukk ak juróom-ñeenteelu euh, fan bi tey jii kon ñu ngi dugg si ñaar fukk yu mujj yi euh, di ñaar fukkeelu fan bi niki ëllëg ak li nga xam ne moom suñu borom déer ñi nga xam ne ñoo si dund si weeru koor yëpp yàlla na ko borom bi wasaare ci réewum Sénégal gi yëpp di leen xaar si kanam tuuti si ubbitab jataay bi si li nga xam ne moo di actualité du jour ñu bëgg a waxtaan ak loo xam te ne bii soxal na askan wi bu baax a baax rawatina ñuy dëkkee euh, côté Dagana ak li ko wër mooy ñi nga xam ne ñoo fare ci la de bi ak jafe ndox moo xam ne moom la ñuy dund. Euh, ci kanam tuuti lay doon di nuyu tey ziar alaaji Baba Ndiaye alaaji ñoo ngi lay nuyu te di la siyaare. mais maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñëpp euh, gërëm ñëpp rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV kon ba ci kanam incha allah. ah déet dama lay bàyyi nga nuyoo gan gi kay. monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ah maa ngi lay fay Baba di nuyu. sa teewaay tey ci euh, émission bi di Iftar mu fàttali ne ministre du tourisme et des loisirs. Mhm. ñu bàyyi la ñu nuyu téléspectateurs yu ITV. waaw salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur yu ITV waaye nag di jiital nuyoo bi ñi ma plateau bi ñoom imam ak ñom Boubs ak yow mi yombal invitation bi. fas tok toog waxtaan ak yéen waye nak jël engagement ni que tay li ci ëpp imam. laay waxal waaye imaam yi laay waxal ak ustaas bu bu ma sañoon wax ak imaam yi ak ustaas yi moom mooy gënal wax ak Baba Ndiaye ak Boubs parce que ci weeru koor lañ nekk. loolu <laughs> baax na baax na baax na waxtaan ak imaam yi. da nga am ay sujet d'actualité yoo xam ni mënoo cee génnee noonu. loolu mënoo mënoo ñëw ci plateau bi di définir sujet yi. di définir sujet yi ñu waxtaan ak yow. <laughs>

رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا jote ndox si wa foos jafe-jafe gu métti la li ci gëna yéme moy jégué gu ñu jégué lak de guerre bi nga xamante ni moy alimenter Dakar si ndox mu sel coono rek ak métti ndax kër gu si nekk yaa ngi am sa sareet da ngay da ngay yab lu mat 15 bidon bidon yi benn bu si nekk 20 litres la yaa koy indi si dex gi root ka ba mu fees nga yab ko ci sareet bi. gas nañu ay teen lenn li baax na lenn li baaxul li si des mooy dugg si biir ndox mi. Euh, tanqasi yóbbu ko dëkk ba lalañ ka eau de Javel ka dookaa naan tout le temps loolu moo fi ni ñoom nag ngir ñu naan ndox mu sell faaw ñu def benn processus bu métti ba tax na rek seen wér-gu-yaram ak wér-gu-yaramu jur gi doon na lu yéeme lool la fi yàgg la mooy jóge ndox mi ba pare te mënoonu ci am ñu koy dund fii si biir dëkk bi lu ëpp fanweeri at. si la fas yi di sangu si la xar yi di naan si la mbaam yi di naan si la ñuy fóot ci def te ci di ci naan. dex gi dafa am eh, Bilal Diouf ñoo ngi jànkoonteeg moom heure bu nekk. même problème bi nit ñi am moom la jur am. si ah. biir ndox mi daf si am feebar ya nga xamee ni jur buñ si duggee eh, eh, feebar yooyu da leen di jàpp feebar boobu la wax wàll te si dex gi la ne. boobu la situation nag ñoom mënatuñ ko muñ benn yoon ñuy ñaan nag nguur gi daal di réagir si nu mu gën a gaawee. ñu bëggoon nag ku ñu ci jàppale bu baax état dimbali ñu ci gestuñu te xam ne force ci Sénégal la bokk. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود sujet du jour bi benn sujet gënu ko doy waar mu ngi noonu euh, di jaajëfal Seeku Diallo suñu correspondant foofee ca diwaanu luga ak li ko war jaajëfal El Hadj Malick Sy ci coordination rédaction bi ñi nga xam ne ñoo tànn sujet bi ñu indi euh, tey euh, def ko actualité ni ko waxee sujet bi gënu koo doy waar ndax dafa incohérent incohérence bu doy waar moo am foofee tey du force rek de maanaam Dagana boo duggoon Dagana dem si commune bu ñit bi nga xam ne daanaka Lac de Guiers nga xam ne mooy source bi source bi ëpp eau douce si Sénégal nga xam ne daanaka si la Ndakaaru di naan gox yu bari di ci naan fa muy jóge ñoom dañoo am maruk ndox mu sell dañoo am maruk ndox mu sell moo di ci dañuy ci lag bi lañuy lañuy dañuy wëgg seen jur ci lag bi lañuy ñuy ragg seen jur ci lag bi la ñuy ñoom si boppam si lag bi lañuy ñuy waaye si lag bi lañuy naan si lag bi lañuy mujj tànk seeni seeni seen i seen i soog seen i yóbbu seen i kër bàyyi ba mu dig jëm see def eau de ngir mën koo naan am na ay benn benn robinet mbedd yoo xam ne moo fa am waaye euh, ku ne nag source doo bu toll nii ku nekk da nga waroon am ndox moo xamante ni bii dafa waroon a baawaan foofee ñu mën a naan ndox mu sell incohérence bi si am li waral ñu tànn sujet bi moo di boo seetaan tey journal bi nga xam ne def nañ ko 18h45 dafa dafa taqaloog beneen sujet boo xam ne waa SONES ñu ngi woon diwaanu Ndakaaru di 16 villes yi ñuy euh, euh, defaraat réseau réseau bi nga xam ne mooy réseau distribution bu ndox bi pourtant ñu ngi defar fii réseau bi de ndox mi war a jóge fële ngir ñëw fii ñu mën a distribuer normalement ndax nee nañ dinañu daal di économiser toll si 45 millions mètres cubes ñu war ko mën a économiser ngir mën a yaatal li nga xam ne moo di séddalam ndox mi waaye fa mooy jógee daa mel ne dañ leen a bàyyi dañ leen a ginnaawal ndax boo jëlee lu mel ni Kër Momar Sarr bi nga xam ne bii fa la euh, euh, euh, fa lañ def station pompage bu mag ba nga xam ne bu paanee Ndakaaru am problème waa Kër Momar Sarr si boppam même situation bii la ñuy dund si ëpp même situation plus de 52 pour cent wu village nga xam ñoo wër Lac de Guiers bi dañuy dund ndox mi jafe-jafem ndox Musel mo moo mo ne moom ñu waral man dem naa ba ñiij man personnellement dem fa mm-hmm. dem naa fa ca euh, jamono yi nga xam ñu ngi def ay émission ci agriculture maire bu ñiij mang koy euh, ziaré wat mu ngi euh, tuddu Adama sar joytu na lu nu mel ndax mom sax donte coalition présidentielle la bokk donte APR la bokk joytu na lolu ndax mu ngi ci waat bu baax ki nga xam ne di président Macky Sall ngir mu jappal leen ci ndax ñom situation bi ñu dund fofé néna ñom kenn mënu ko expliquer bañ comprendre maanaam ndax bu ñuy dem si dex gi dañuy dox lànk dem duy ndox te dox googee di yóbbu ndox ay kilomètres kilomètres di jox ñeneen ñuy naan ñoom mënuñoo naan ndox mu sell loolu mun mënuñu koo comprendre te xel sax mënu koo comprendre kon nañ leen bàyyi xel bu baax a baax bala ñoo euh, séddale ndox moo xam ne source ba euh, ña fa wër ñoom war a gën a euh, war a mën a alimenté wu ñu bàyyi leen xel bàyyi leen xel bu baax gis naa fa it benn situation bu xaw a doy waar mooy ñi nga xam ne yëngu si wàllum agriculture ndax loolu message boo xam ne foo ma jàllale ko ñu ngi dend ak ñoom tamit ni nga xam ne moo di lag bi ni mu jàppandee si ñoom waaye euh, li nga xam ne moo di réseau bu mën a jëlee euh, ndox mi ci lag bi indi ko seeni tool amuñu ko dañoo mujj ngir am solution moo di lëkkaloo ak benn doomu Brésil boo xam ne moo ñëw ngir am suuf bu mu bayee xam nga nu mu def ñoom jox koy hectares yu mu bayee mu ngir ndox mi ñëw ba ci li nga xam ne moo di seen i tool ñu mujj euh, utiliser ay ay ay système d'arrosage yoo xam day yàq ndox te amul rendement bari waji yor ay asperseurs yoo xam ne da leen a tiim di def di maanaam di def rendement bu doy waar seen kaw ça veut dire mu ngi utiliser seen suuf utiliser seen ndox luñ ban essence da mooy defal ñu ay canal te loolu yaakaar naa am nañu ay projet ki programme yu bëri yoo xam te ne bi ñoo woon gunge ngir mu mën a jàppandi ba ñooñu si baykat yi mën a gis seen bopp waaye nag ñi nga xam ne di askan fay dund mën nan naan ndox mu sell comme Sénégal yi yëpp. Alaaji Baba. Euh, sujet bi vraiment sujet bu pertinent la mais pour moi c'est pas euh, du lu bees ñu wax Sénégal parce que boo xoolee euh, ñi nga xamné ne ñoo dëkkee ci li nga xamné ne askan moom la war a lu ëpp ñom ñi ci dëkk sës ci rek duñ ci jëriñoo je donne l'exemple souvent Thiès Thiès dañuy wax naan mom moy la région des mines parce que bëri na fa industrie minière yo xamné ñu ngi fa té tout temps nga dégg seen jeunes yi dañuy casse na ñom amuñu liggéey té war nañu liggéey ci industrie euh, minière yooyu benen bi ci dess mom moy wax na parce que ñi de sës rek ci euh, lac bi souvent amuñu ndox on se rappelle bi Pa Aminata Touré nekkee premier ministre bu Sénégal amuñu nañ benn problème ci walu ndox bi nga xamné moy bi euh, euh usine bi canal bi ki wi tojé won tuyau bi tojé won muy ni problème bu reuy ci Dakar ba nga xamné dañu amone problème mu ndox maintenant man je crois nak que il y a l'OFOR Moi, office national des forages ruraux euh, moom tamit war na def li nga xam ne moom mooy liggéeyam ci euh, monde rural bi parce que c'est vrai que état bu Sénégal mu ngi def mais def gu mu def matul parce que je rappelle que def nañ KMS KMS 3 KMS 4 je crois sax KMS 5 présentement mais terewul ba tey ndox des na matee ci Sénégal yëpp kon moo lay wan ni loolu solution bi warul warul jóge rek rek rek rek ci état moo tax souvent tamit je donne l'exemple booy euh, bu Touba ca kanam il faut euh, également pousser les Sénégalais aux initiatives communautaires. Mhm. parce que ce que tax tamit du nous xaar lu avons ci état bu Sénégal Maintenant, bu état ñëwee faire, nous avons fait des forages je je dis bien l'État, la war

de servir ñeneen ñoo xam ne ay kilomètres kilomètres kilomètres la mu war seen diggante ak ñoom ku ci mel ne Dakar Thiès ak feneen fudul foofu ñoom di amee ndox mais ñoom ñi nga xam ne ñëwul sës rek lag bi sës rek ci usine bi mënuñu amee ndox c'est contradictoire moo tax nag léegi Boubacar il faut que ñoom tamit en tant que des fils de Kër Momar Sarr des fils de de Louga ñoom tamit jël seen initiative personnelle teg ay forage comme ni ko seen immigré di defee encourager loolu xaar bañ a xaar lépp lépp lépp ci état bu Sénégal état nag

la le Sénégal donc sen, sen askan exemple bon, noonu day des ci nga ont de ñoo Thiès hydrocarbures Sénégal en même temps parce que le Sénégal est un des gens qui ont gis surtout ñu ngi exploitation pétrole et gaz qui ont li xam ne rek si ñom mënuñ alors kon gaz bi pétrole Sénégal domi Sénégal sen bop dañ ko mëna a jëriñoo man vraiment loolu laa ci amoon lu ci wax té man ma encourager leen également pousser war leen pour ñu gëna lancer initiative communautaire pour que ñom tamit nga xamné bo état ñëwé ñom dañ am sen sen sen forage mën ci service sen bop mën ci am ndox le temps état di combler vide bi nga xamné ne nañ ko ba tax ñuy jooy ndox sa su nek Alaaji Biram waaw Boubacar di la gërëm di gërëm baax Cheikh Sall si thème bu am solo boobu je pense que euh damay fàttali benn baykat bu nekkoon Côte d'Ivoire Euh, ay tubaab dana ñëw ba ci toolam Boubacar fekk ci tool bi euh, muy paa bi baykatu cacao la ñu fekk muy bay ñu ngi sonn lool euh, tubaab bi jógee Suisse ñëw indi ay paquetu chocolat lii daaj ko mu mos ko ñu ngi ko lekkal lii mu mos ko affaire bi mi ngi neex mu ne c'est c'est vraiment doux après tubaab bi di ko xam nga lii lan la lan moo lan ak lan lañ ko composé wu bi mu ngi xool mu ne xamul lan la te paa mooy bay cacao parce que ñoom dañ retracé woon cacao Côte d'Ivoire bi di ko topp ba fu muy industrie ba muy gën a kawe. après tourné waat que ba mu ñëwaat fi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire. dañ doon xool circuit bi donc à leur grande surprise pa bi mag moom c'est la première fois ci biir àll boobu mu mus ñam chocolat boobu. Mhm. exemple boobu pourquoi ma joxe ko mooy juste ni ko ni ko chocolat jege te sore ko parce que source bi moom mooy cacao bi nga xamante mooy base bi. Mhm. moom mooy ñax moom moo koy trier moo nekk ci àll bi. mais malheureusement lui dans son environnement malheureusement baykat la amul tous mooy moyens li mu def rek mooy fii la cest à fii la man yem moom maanaam fi mën yem mooy ci environnement am boobu tubaab bi moo am doole mën koy récupérer pourquoi exemple boobu mooy si Cheikh exemple bi mu jël xam nga Sénégal boo xoolee dëkk la boo xamante ni boo open la am na lu positif open mooy ñu ko nga xamante ni kenn ku nekk di nga ñemee ñëw investir ci Sénégal peut-être ministre dinañ d'accord ci loolu en tant que tourisme C'est-à-dire il y a un cadre boo xamante ni adéquat les gens veulent venir au Sénégal mais yaatal googu ñu yaatal Boubacar dafa ëpp Boubacar yaatal gën a yaatal Sénégal dafa ëpp benn jour dem naa Dubaï ci benn conférence ñu nekk di waxtaan après waa ji lan la ma expliqué mu ne ma fii entreprise boo fi gis 60 pour cent Dubaï yoon ngay nekk indil indil 5000 milliards Dubaï suuf si Dubaï yoon moo koy moom doo fi am nationalité te plus de 50 de cent Dubaï yoon moo

ki ndox mi jege te mënu nga euh, da nga yenn saa yi mu am problème ñu koy corriger mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. xamante ne ay feebar da bilaar jo yooyu bi ñu xoolee yëpp meesee na leen da ndox mi ñuy naan moo sellul alors quelques kilomètres ndox moom mooy ñëw ba ci capitale bi pour man loolu volonté politique la Boubacar c'est-à-dire loolu jafewul mm-hmm. parce que ki nga xamante mën na jëlee ndox nest pas Lac de Guiers ba Dakar pour orienter les côté compliqué logiquement parlant mais je pense que comme fi monsieur le ministre comme que téwna am dina information. monsieur le ministre noko jangaté wa euh, Boubacar di suñu mbokk yi ñu fi euh, reportage bi wax dëgg sa xel village boobu mën nga jàpp ni que yëf yi amul cohérence analyse bi sama mbokk journaliste yi wax ak analyse bi imam wax dafa am lenn rek luñ ci fàtte mooy ndox mi jëlewuñ ko noonu rek pompe Dakar dafa am usine de traitement mooy KMS 1 KMS 2 ba ba KMS 3 ndox bi dañ koy jële ci lac bi traité ko Soko dougal ci réseau bi donc amna liguey bu ci am ci diggante bi sinon li dal wa village bobu day dal ñeneen ñi naan ndox mi lool moy bi ci njëkk benen bi ci euh moy do xol à l'échelle euh, micro da ngay xol à l'échelle macro da ngay xol à l'échelle macro moy ku bo nekkee ci gouvernement da ngay xol réew mi ñaata kër ñoo amul woon ndox ak tey jii nii ñaata kër ñoo am ndox pour mën a apprécier politique euh, accès à l'eau potable bi président de la république waxoon ak sénégalais yi boo ko jëlee ci wàllu xayma dañ naan la tey egg nañ ci pourcentage boo xam ni pratiquement dafa doubler liñ fi fekkee woon mooy maanaam bu junni sénégalais amul woon ndox tey juróomi téeméeru sénégalais ñoo amul ndox donte am na juróomi téeméer yoo xam ni ci réew mi lañ bokk waa village boobu ci lañu bokk mais damay gën a xóotal parce que danga wax Kër Momar Sarr Kër Momar Sarr à part usine euh, SONES yi am na beneen installation buy recycler ndox bi di ko jox baykat yi di ko jox ñi dëkk ci alentour yi ñuy naan Donc, nous sommes connectés au réseau Bob. Ce qui est le domaine agricole communautaire, le Bukur Momarsar. Qui a un reportage Fofu, je suis allé le domaine agricole Bob. Parce que le système de pompage, si on irriguer 5000 mètres carrés, c'est là. 5000 mètres carrés. Dak Bob inauguré, nous avons fait un fait un 3 et 4 ans. Capacité, il y a l'agriculture, agriculture développé nous sax dit que brésilien pour nous faire pour nous faire nous am buñ domaine nous duñ jënd suuf dañ nous encadrer semences, technologie donc l'outil à l'échelle micro nous à l'échelle macro lan mooy capacité bob xam nga station pompage boobu day récupérer ndox bi traité ko pour mu irriguer 5000 mille mètres cinq hectares 5000 hectares la am capacité génne ci lu mat à peu près ay 200 cent mètres cubes pour ndox bu sell buñ mën a naan donc ña nekk foofu dañuy xool rek nan la ñuy def ba connecté wu loolu mooy cohérence bi war a am ci kii bi mais munoo jël ci benn village. mënuñoo connecté seen bopp. non non xam nga mënuñoo connecté seen bob. c'est une volonté étatique. déedéet qui leur permettra xam politique euh, politique yi président de la république def ci walu ndox ak ci walu courant ak ci walu wér yaram ndox duñ la ko andil ba sa biir kër bo dëkkee yof wala nga dëkk Ngor dañuy état bi day indi ndox bi ba biir ba diggu Ngor après ku nekk nak yaay fay dem dem défi sa connexion. Mhm. mais munoo wax ni que keur Momar sar amul ndox bu sel. wax jotuma ci kay mais ngay te ni que la dama la ci ni que du rek fa domaine agricole communautaire bu marsar bi opérationnel mettre euh, à leur disposition de l'eau potable et de l'eau destiné à l'agriculture gratuitement ak encadrement ba ca war léegi nag euh, xalangu li ñu koy wax dajul fépp daanu dajul suuf euh, ci fukki at wàññi nañ ko téeméer yoo ci jël euh, soixante quinze pour cent juróom-ñaar fukk ak juróom am nañ léegi des na juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu noonu lii ñu mbébét incha allah bu PAP 3 bi eggee dina wàññeekuwaat mais lépp mënul xëy xëy rek sotti bu fekkee ni que da nga bëgg a apprécier objectivement wax rek ca yàlla tax da ngay wàññi ñaata ñoo amoon ak ñaata ñoo amul nga xool lim ba nekk ci diggante bi bu fekkee yanu na maanaa ci fukki at nga xam ni ñii ci li ñuy jëm mi ngi saafara beneen problème dafa am ci ndox boo xam ni nit ñi duñ ko wax gis nga neewuma ñi jiitu defuñu li ñu waroon a def mais am fum soxantalon parce que yor une planification Dakar en 10 ans nombre bi pratiquement doublé. triplé triplé. ndox bu daan ñaari litre ndox légui soxla ndox installation yi fi amone ak euh, li réseau bi lolu mo waralon ngay gis di am ndox am ndox suba Parcelles Assainies di am am. Tay problème yooyu réglé na lolu ay investissement la et dañ koy prévoir sur 15 ans ci kanam donc bo jëlee li nit ñi yokku fi ak fukki ak ak juróom KMS 2 KMS 3 dina régler problème mu ndoxu capital bi lolu moy investissement yi nit ñi doon critiquer moy investissement yi nga xamni boko boo def ya ngi anticiper ci ay problème donté nak dañ nga fee fekk ay problème comme yi melni amna ay village yo xamni ni ba tey nekk ci boru fleuve bi deug la dañuy dem tanki ndox mais ñoñu bo xolé politique Euh, PUDC ñaata forage la créé Puma ñaata nit la dimbali ñu am accès à l'eau donc ñi ngi def ay jéego ca jàpp naa ni bar na waaye matagul fépp. matagul dafa doyagul. waaw jërëjëf euh, Alaaji Baaba ñu daaneel rek dañuy jàng jàll ci alxuraan ji. dañuy jàll ci concours alxuraan ji xam nga dinañ am jot waxtaan ak moom. c'est ça dama bëggoon a bondi rek. un peu fi dem na man dem naa dag bu kër Momar Sarr gis naa installation yi nga xam ne moo fa am. mais tamit jàpp naa ne euh, dina xaw a yanu maanaa ñu installé li nga xam ne moo di euh, euh, station de pompage yi nga xam ñoo nekk Kër Momar Sarr bala moo génn tuyau yi sotti ba Dakar war a sotti si gox yi nga xam ne moo gën a jege. dëgg la am na ay installation yoo xam ne dina wàcc si dëgg si si si chef lieu de commune yi wala si gox bu nekk ngir gën a yaatal mais ñoom dañuy am problème mu ñi nga xam ne ñoo war a yor distribution wu kër yi ñu approché leen day mel ni. dañ ñi ngi jàpp ne même que effort seen installation yi du yegg si côté boobu day mel ni dañoo jàpp ne ñoom jege nañu ndox bi amuñu problème ndox en fait dañu leen di fàtte hmm. dañu leen que ñoom dañu mujj débrouiller wu di dem si dex bi di fa di fa di fa sangu di fa di fa naane hmm. parce que dañuy am benn benn robinet boo xam ne mooy nekk pour benn village tout entier boo xam ne benn robinet moo fay nekk boo xam te ne bi dañuy dañuy rang une journée Mm. ay butéel la rek rang man jot def naa fa reportage sax boo xam ne jàll na si télé bi mm. dañuy dañuy rang journée yoo xam ne dañuy rang ay teg ay butéel pour ñu mën a am ndox moo xamante ne bi dinañ ko mën a yor benn butéel seen biir kër li si des yëpp dañuy dem si euh, lac bi pour mën ko utiliser xam nga nit ni muy utiliser ndox par jour bari tellement que mënta ñàkk loolu moo waral euh, li nga xam ne moo amaat si ñi nga xam ne ñoo di baykat yi tamit parce que man zone bi ma lay wax nii ki nga xam te ne bii mooy maire ba mooy président des euh, cultivateurs patates du Sénégal bi yëpp kon ñoom bayuñu lu ndaw dañuy dañuy def production bu mag patate du Sénégal la kooku mooy président bi ça veut que ñoom dëgg la dagg bi mu ngi fa soriwu leen xëy na mais diggante euh, fi nga xam ne moo di Kër Momar Sarr ba ñic ay village village village moo dox seen diggante mais côté yooyu ñi nga xamante ni bi tamit ñu ngi waraat lag bi te egguñu directement ci Kër Momar Sarr duñ mën a bénéficier wu ndox mi nga xam ne euh, euh, dag bi mu ngi koy traité pour jox ko zone bi nga xam ne moo wër Kër Momar Sarr. village bari daal voilà village yi Kër Momar Sarr ñooy bénéficier wu ci bi traitement bi. dafay am ñaari dafay am ñaari pàcc. dafa am techniquement lu mën a nekk ak euh, théoriquement li nit ki xalaat xam nga boo ne KMS mën na def ay déviation loolu xel da koy mën a nangu parce que nit ki day jàpp ni que tuyoom la yor rek mën na ñëw bënn fii nii après mu am mais xalaatal ni que KMS bañ koy def système de pompage de pression la. objectif bi moy ndox bi Et si dama lay wax rek techniquement donc aspect bobu nañ ci baye xel ñi def xalaat liguey du question ni nga daño soxor du question ni que wala du question ni mais projet bo gis am objectif ñun ñi ñep gis nañ ni fi bi fi keur tuyo keur Momar bi Dakar est resté pendant ba Dakar. dafa am ay problème léegi bu fekkee ni que pour xalaat village yooyu la nee naa la domaine agricole bi nekkul woon foofu te alhamdulilah comme que yow dem nga fa parce que ñi fay dem bariwul ñi ko xam bariwul waaw donc euh, xam nga ni loolu nekku fa woon mhm. tey jii nii ma nga fa léegi bu gënee màgg ak dina am beneen bu fa dem bu gën a sori parce que doo xëy xëy xëy lépp lépp teg fa lépp mënta nekk mais ci li xel nangu mooy KMS 3 nekku fa woon ci li xel nangu moy domaine agricole ba nek foon ci mi ngi jox ñi dëkk ci wet bi ndox mu sel mi ngi dimbali baykat yi nek ci wet bi pour ñu bay léegi bu déwénee station pompage bu mel noonu mën na bokk ci PAP 3 bi ñi def mu gëna a décalé dafa de de de 20 km lolu jëlat en charge lenen non lay continuer ba wër inshallah mais li ñi nangu rek moy est que jéego yi amna ci mais techniquement aussi dafa am lu mën nek théoriquement am lu mën nek mais li ci ëpp solo pour ñi ñuy seetaan ak suñ mbokk sénégalais yi ñuy seetaan pour ñu mën a wax ak suñ aqulaay taala dañuy xool ñaata ñoo amul woon ñaata ñoo am te boo jëlee ñaata moo amul woon ak ñaata ñoo am tey nee naa la téeméer yoo jël juróom benn fukk yi euh, fukk ak juróom yi téeméer yoo jël fukk ak juróom yi tey am nañ juróom ya ñoo des te juróom yooyu noonu boole nañ leen ci programmation ou euh, politique euh, ndox bi président de la république def pour que juróomi témèr yoy amul au moins ñaar témèr wala ñet témèr wañéku ci. amna solo jërëjëf Cheikh jërëjëf aladi Baba euh, ñoo ngi dellu siwaat léegi léegi ak monsieur le ministre ñu daal di jàll ci tartila suñu concours jangul alcorane en ligne très bien Boubacar Diallo di gërëm bu baax euh, première partie bi ak Cheikh Sall ak intervention yi nga avez ni pour euh, am Masha'Allah. fi Boubacar ñi ngi nekk si concours euh, tartila parce que nous ñuy wax alxuraan ku ñuy wax weeru koor wax alxuraan karim je pense que politique baax na l'art de gérer la société bien la cité mais aussi alxuraan c'est mooy système bi nga xamante ni Boubacar mooy joyantil que nous ba ñu mën a xool ban politique nañu jaar pour àdduna bi gën a mais là-bas c'est le Coran Ma faral naa fi kitaab min nous n'avons rien omis dans ce livre alxuraan moo nekk ci lépp Boubacar jury bi génnee na juróom benn nit ñoo xamante partout au Sénégal participé nañu kon ñu xool les six yi nga xamante moom la jury bi tànn aujourd'hui tout de suite يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران جرجف ماس جرجف بوبكا جرجف السنغال ييغا خاامني نيغا باي خيل سين كونكور تارتي لا بوبكا جينا نا كونكور بي مونو جانغي با بارنا ك يا لو جوري كي آه، ديريير غا خامنتيني ا آه، نيغي غنم باخ دكتور مبالو فال بوكو سي آه، جوري غران بري سينيكو كي خامتاني موي مختار سيلا محمد الامين تيام خامتاني دا ام اجازات قرانيه سيرتيفيكاسيون قرانيك ньо نيكي غيناو كون داي ندلو كي خامتاني بو بكر ديال موي خاريتو سيدي موي استاذ محمد المختار سيلا مو داف كوريكسيون ييغا خامتاني ولا نين جانغ تسويت لا كوريكسيون رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مبكي يجي جندي كوي موي سيت لي ني سيل سيلم جان يا خامني ني تي بري لنجا نياك تي اي بوين مول وخال تي نيك موي تفخيم تفخيم الراءات المكسوره موي را ييغا خام دانيو ما تي سوف دنجو را سيول ني بان دنجو ديجل مان دنجو تفخيم دنجو را لان ترقيق loolu bokk na ci yàq yi feeñ ci njàng mi ak noyyi ci biir ab baat saa boo ci biir ab baat na xam ne lu mu noyyi nga lu mu gàtt-gàtt ak loo ko sàcc-sàcc ñi lay déglu te xawum njàng dañuy xam ne noyyi nga xamee ko def ñi lay déglu dañ koy xam ñaareel mooy dafa am ñu am muskila ci tafximu lafzil jalaala mooy allahu dañ naan allahu allahu te dañoo wax allahu allahu làmmiñu rek la ñuy kóobal ci biir waaye tuñu jël mu ci bokk ndax bu ci bokkee day yàq tafxim bi am ñoo xam ne dañuy xaw a ishbaa lu ëpp xarakatul hamza ci aawudu ñu ne aawudu aawudu billahi loolu yàq la raa yu bare ba tam dañ koy tarqiq te dañ ko war lan tafxim mooy dañ ko war tijjal lu mel la xarfu zaay zaay ñu ba dañ koy jàng jàng ko zaal te moo dafa war bokk ci xarfu safir moom ak aksod ak sood dañu am sus mu ñu am bol de tudd saa boo jàngee zaay te amut sus moom rek daa da koo jànge ra nga jàng te ko jàng de nekk yàq boobu bala mag a mag am ñoo xam dañuy xaw a xalxal yenn lu mel ayn wa huwa bil ufuqi l a'la aala ak a'la du benn loolu yàq am am tam problème ci xalxalatu al dañ koy bu uridu aql ñu ne aq aq aku aku aku, aqo bil haqq iqo iqo tarabat as amna ku jang jang fa kanat haba am mumbassa mumbassa dal mumbassa mumbassa bu jang mumbassa jang ak ñak e hamstag ta تعبد بني جبارك مسلمات مسلمات خوك همس أمنهم جدهم السابقون السابقون أم غير سابقون لرجال سابقون السابقون سابقون مهم قون مقام أقول شيء القرآن أم نحن الجيم نقول جان من نقول جان جا جا تجا دفر لنا نيو نيو جان جا ما جا لا أم نحن نجي dañ koy war a sewal dafa am xunn al xunnaat mufaxama mooy xunn boo xam ne araf bi ci tab dafa nekk xuruful istiala dañ koy dafa bokk ci xuruful istiala dañ koy dañ koy di jël dañuy di jël xunna gi mu ngi mel rek wax minkum dañ ko war a sewal waaye min qablu dafa war a lan ak mansura ilax am ñoo xam dañuy ëppal ne bismillah bismillah bismillah déedéet amul bul bul bul ishbaa foofu xaraka gi ba mu xaw a noonu am ak yaabu ndaw déedéet bismillah ak bismillah du benn moo أعوذ بالله كما أمنا دينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أه. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لولو كات ساتشي غدا حرفي تيبو عربي لب نيو ضرب المانكي لول اي جندي كون حبا دس لين واي بلن ان شاء الله ني واتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران ما شاء الله دي غرم بو باخ محمد معتار سي بو بكر لا ريغور دي جوري لا ريغور اي بي لا ميثود وي ني القران نيوي رك سي سا اقرا باسم ربك Hein? Oui. Djangal, Oui. apprends apprends et n'écorche absolument rien du Coran il ne faut pas écorcher le Coran vous avez dit que vous avez dit allah si avez dit da nga avez de que vous avez na que vous avez que ah que lu avez ak que lu avez ak que vous avez allah lu que ak la nga fa vous avez dit que allah bu bu leneen jotee nga liggéey ko bu leneen jotee nga liggéey ko dara bokkul ak lenn. macha allah pas l'adaptation. adaptation. très bien ah xanaa demoon coupe du gisoo coupe du monde bi. coupe du monde bi adaptation. heure julli gars yi julli. heure julli gars yi julli. allah te léegi boo xoolee même. amul fu amul jàkk ci biir ci biir stade bi. jàkku góor jàkku góor ñi jàkku jigéen ñi. macha allah l'adaptation. et ne ne jouez pas avec des heures de prière dañ ko organiser même bu football. fubal booy seetaan boo dans l'Arabie dans l'Orient tout ça boo football. Football fubal fubal ba takkusaan jot télé bi Télévision ko def télé bi day Nord dugal nodd bi ba nodd bi jeex ñu soog a indiwaat L'adaptation. Très bien. Pour voir l'adaptation, on va voir aussi la réaction du jury par rapport au Nodi. Quand nous connaissons Nodi, c'est sur 20. ngeen bàyyi xel nag voix bi mooy baat bu neex bi point moo gën a tuuti la règle c' est ahkaamu tajwid les règles yi nga xam ne tajwid kon les résultats يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل هذا يومكم الذي كنتم توعدون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر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 ولو جئنا بمثله مددا يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان

parce que dafa am ñuy jàng ñu joxe noddi nag maintenant danaan la naka nan waroon jànge naka nan waroon jànge boobu nag ki nga xamante ne mooy Ousmane Bousso moo ñu koy jàngal foofu mu ngi terminé Ousmane Bousso nag comme son nom l'indique bàyyi moom mooy ñëpp xam na ni bokk na nga xamante ne bu doon tànn juróomi nit c'est pas exagéré ah juróomi nit yi gën a jekku alxuraan ci àdduna il fait partie Xasan Boso. waaw juróomi nit yi gën a jekku alxuraan ci àdduna jàngum alxuraan ci àdduna ci la bokk. et bu ñëwee bu ñëwee mu nekk mi ngi fi. mi ngi mooy président euh, grand prix Sénégal Abdoulaye Dia mooy président ci ne Dubaay te doon jàng mu jàngal ko ndar la dëkk mais mi ngi Dubaay ci ci am sélection rigoureuse foo nga mokkal alxuraan ba pare fexe da am benn niveau parce que foofu imaam bi dañ koy les salariés lay nek dañ koy jox kër jox auto n'est-ce pas di nga fay salaire ba pare fofu non non damay dem de. président arrêté. waaw damay dem damay dem arrêté. arrêté damay dem arrêté. kon la correction ki nga xamanteni moy moy na Ousmane Bousso Ousmane Bousso nak moy doomu Hassan Bousso Ousmane Bousso daw boko na tarti la mo jëloon mo jël moko rawon ma macha allah mom lañ joxoon télé bi. télé bi ak Kabirex Rex moko joxoon télé ba. wa yeneen waa Casamia joxoon ko salon ba. ñi joxoon ko ay millions. ma sha allah رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان macha allah Boubacar euh, loolu moo doon euh, là la euh, du jour di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi participé à participer Mass mën nga numéro de participation bi 77 490 80 80 qui ku beaucoup beaucoup qui ci tartine la mën nga yónnee vidéo jusqu'à présent semaine bi nag mooy nekk dernière semaine pour inscription parce que semaine bu mujj Boubacar moi qualification bi nga xamante ne demi-finale ak finale nga xamanteni inshallah jeudi 20 avril nii def final bi après nak ñi tëjaat tafsir 2.0 ak oustad tey sosé def événement bu mag ñëpp ñëw tok ñi tëj tafsir bi itam la ñu ñëw tok physiquement après ñi teral ñi nga xamanteni ñoo jël pay ñoo jël deux même rn aussi dañuy bëgg teralaal ki nga xamanteni moy xale bi gëna a jekku parce que amna nay mag amna nay xale dañuy sóoraal li nga xamanteni xale bu baax lolu mo doon taxtilaa de jour waka jere jeuf ñoo ngi lay gërëm bu baaxa baax di la sante imam togal touti rek xamna ni war nga dem mais ma 5 minutes rek dama bëgg nga fekke début waxtaan ni bala ngaa dem yaa imaam dama lay dëj alaaji baaba ubbil jërëjëf Boubacar ñu ngi lay nuyu baax gërëm euh, ñëpp ñu seetaan di sargalaat imaam ci waxtaan wi di dalal jàmm monsieur le ministre mais monsieur le ministre euh, tey biñ lay invité ñu bëri dañu def ay euh, question laaj ay question yu bëri te bëgg naa question yëpp ñu waxtaan ci ak yow ñu mu gën a yaatoo bi ci jëkk danga nga porter plainte Ousmane Sonko parce que da nga jàpp ne daf la waxal loo xamante ne ni amul nga porte ko plainte ñu bëri na jàpp nañu loolu laata Ousmane Sonko ki nga waroon porté plainte dëgg mooy njiital forum civil di Birahim Seck ndax moom la wax la Ousmane Sonko wax nga ne ko fi ñukk plainte woo ko nga plainte Ousmane Sonko mën nañu xam lan moo tax plainte Birahim sekk mi nga xam ne wax na ci wàllu euh, affaire plore bi nga xam ne ba tey coow laa ngi ci riir ci Sénégal waaw jërëjëf baaba euh, ni nga laajee question bi bu dee man dama koy reformuler pour lépp bëgg mu mu leer rek mu gën a leer euh, Birahim sekk amul fenn ci livre fu mu waxee li Ousmane ko wax après dinañ ñëw ci loolu Birahim Seck livre am amul ci fenn fenn fenn fu mu waxee ni que Mame rapport daf ko épinglé Ibrahim Sek, ci livre moo tax baax na nit ñi di xool dafa critiquer le projet daal ni waaw waroon nañ aménager lii liñ ko aménager dafa cher waroon nañ jënd tracteur bi waroon nañ def lii waroon nañ def lii defli. nañ def mais amul kenn ku mën a jël ci livre Birahim Seck fu mu bind ni que Mame Mbaye Niang rapport dañu rapport épinglé ko Ousmane Sonko dafa ni rapport IGE daf ma épinglé moom yor na ko génne liir ko kon dañuy d'accord ni que ñoom ñaar wax yi bokkul bon kii critiquer projet wax dëgg yàlla man maa waroon a mujj ci di porter plainte Birahim Seck parce que man projet bi géré wu ma ko ñu ci baari dañuy wax parce que dañoo jàppoon ni que man dama nekkoon coordonnateur domaine agricole yi musuma nekk coordonnateur domaine agricole Le domaine agricole yi dañ projet la bu président de la république nommé par décret ni ko yaa koy téye ñu toftal ko ministère bi ministère de la jeunesse parce que moo yoroon ndaw ñi ca projet boobu liggéeyu ndaw ñi moo ko taxoon a jóg comme ni ñu toftalee euh, COUD ci enseignement supérieur comme ni ñu toftalee euh, Sénélec le ministère de l'énergie comme nous fait le SONES le ministère de l'hydraulique comme nous avons toftale Ageroute le ministère de l'équipement comme nous avons toftale AIBD le ministère des transports aériens comme nous avons toftale ANAM le ministère de la pêche comme nous avons LENEN leneen ak LENEN. donc le ministère bi la yor politique bi mais gestion bi nañuy le projet bi avons nommé woon nit ka fa njëkk a toog Jean Pierre Senghor la tudd ka fa topp ka topp ca Jean Pierre Senghor mi ngi tudd euh, na Dafe keneen ka topp ca Mamina Dafe mi ngi mooy actuel ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour tey jii nii keneen a fa nekk mais man musuma téye projet bi moo tax jaxase bi nit ñi bëgg a dañ koy def rek pour tooñ wala dañ koy def pour tooñ Mame Mbaye Niang waaw wala pour jéem a indi firnde ci ñoom ci li ñu wax mais man musuma ko gérer. kon kon da nga da nga jàpp ne yow li ci tudd nii tooñ la mais waruñu la ci tudd am na ñeneen ñu ci war a tudd. xam nga baaba. xëy na bu ba ci kanamu wax ji dinaa la ko wax euh, wax ji dina egg foo xam ni yeneen di ak yeneen leeraange dina ci génn. mais tooñ mënta fi weesu tey di jëbub fii télé bi dafa am direction programme. am direction technique. Mhm. am direction communi euh, euh, relation ak. relation publique communication marketing commercial. voilà qui mhm. est yor direction programme bi qui ki nek directeur général télé bi vous bu un problème ci programme bi kan la directeur général euh, directeur programme bi lañuy de wo waaw waaw mais beaucoup de responsabilité au directeur général. merci beaucoup lu Sénélec bu amee problème kenn du wax ministre ba la. DG ba la ñuy wax. DG ba la ñuy wax lu kudd bu problème Quel du wax ministre de l'Éducation nationale la. anam bu amee problème Quel du wax ministre de la pêche la lu tax euh, euh, kuréel yi nga mën a jël bu problème du ñu wax ni que ministre ba la mais dañ naan directeur ba la parce que directeur ba.

Prodac doo woo li ma ci gën a metti mooy ay nit ñi ñu ñuy déglu ay nit yoo xam ne jàpp nañ ni que seen xam-xam egg na fenn ñooy wax yenn wax yi barki dem dama toog ba ci yàgg ma dégg kenn ku ni wuy tôt ou tard Mame Mbaye Niang rendra compte sur les vingt neuf milliards te kooku doon koo xam ni ku ñuy déglu la ci réew mi <laughs> mais nan ngay rendre compte ci luñ la dénku nan ngay commettre faute de gestion ci loo géré wu donc foofu la wax di egg mooy c'est-à-dire ni wara a pour wax saytootuñu dañuy dégg rek di wax journaliste balaa ngay wax ci dara da ngay vérifier da ngay vérifier Birahim Seck nan la mën a wax fukki xelam xal suba na dem wax ko bu fekkee daf ko wax ci li en tout cas livre am liir naa ko amul fenn fu mu waxee ni que Mame Mbaye Niang a été épinglé par un rapport Ousmane Sonko dafa tok ci télé ca baax nañu ñu fàttali wax ji wax ji commencé wul ci waxam foofu wax ji mi ngi commencé ci bi may jàll. assemblée nationale assemblée nationale. votu budget benn député toog yëkkati ay këyit daal ni monsieur le ministre fii du sa place sa place kaso bi la parce que rapport a ngi nii ñu jiiñ la ci 29 milliards yoo luubal. kooku boo nee ma lu tax porté woo ko plainte dama naan la barab ba mu ko waxee député bu fa wax kenn mënu laa topp ci dara dafa am lu ñuy tudde immunité parlementaire dans l'assemblée député moom bu nekkee ci biir assemblée lu mu wax kenn mënu ko ci topp ba ma koy tontu bu la neexee nga demaat xool li ma tontu mooy dama ni ko waxuma fa sax di ko jéem a tontu naan ko rapport bi ak rapport bële dama ni ko booy jiiñ sa moroomu nit danga koy jiiñ loo am firnde man Mame Mbaye amul benn rapport waxuma rapport IGE waxuma rapport OFNAC waxu dama ne ko amul benn waaw dama ne ko amul benn rapport boo mën a indi man bu ma tuumaal donc kooku dafa yabal député mu wax la mu wax doyu ko la mu doon ut amu ko moom mu gàddu xeex bi ñëw toog ci plateau ay journaliste wër ko mu ni Mame waxul dëgg

ki koy gérer la ñuy woo ki koy gérer la ñuy donte IGE mën na jàpp ministre waaye fi wax ji gënee bon ak fi mu gën a ñaawee donte moom sabab na ko ay fan wax député mu wax moom mu soog a wax mooy la moo lay wan ni lu mu préparé la moom bi muy wax am na wax boo xam ni moom kenn xaaru ko fa yow bub su mën ngaa def erreur boobu ma nangu ko mais moi, je ko ko baal. lu je parce que ENA la génne moom ko parce que le ministère des finances fukki at ak je ne suis parce que je lan de dépenses lan administrateur de crédit moom du ko parce que beaucoup de fu mu ne IGF fukki at ak juróom Je sais lu suis l'IGF ak IGF IGF ministre IGF vous audité IGF moi, inspection générale des finances service le Bire, ministère des finances buy le ministère des finances pour muy saytu kuréel yi muy double chalice. parce que moom moo yor seen kilifteef ci comme ni un ministre bi man IAF. ma amee IAF mhm. buy saytu kuréel yi ñu ma dénk ci wàllu euh, technique département secteur secteur ministériel ba waaye léegi ministre des finances nan la mën a amee kuréel boo xam ne day mën na jàpp moroomu ministre am ca moom moo yor kilifteefu xaalis bi hmm. loolu Ousmane Sonko bu ko xamul mënuma jàpp ne ko xamu parce que xam na ko nga weesu loolu dégg tur bi rek inspection générale des finances mooy day saytu kullu xaalis bi ñu dénkaane mais xaalis bi ñu dénkaani kayit bi nee na ñun dénkuñu ko ministre bi directeur bu lañ ko dénk wala coordonnateur bi. mais yow moom ko bu xamul loolu directeur bi coordonnateur bi yow amoo dara loo leen di commandé. loo xam ne war nañ ko mën a def en tant que ministre de tutelle. déedéet xam nga moo tax ma ne la ñiy wax yenn saa sax di nga jëlale ñu bari parce que bari na ci ay organes yu ma ci toppoon ñoom lañ lay wax mooy euh, non xaw ma woon. ne que nekkoo woon bi parce que naturellement projet bi bi mu amee man dama ko bëggoon dama gëmoon projet bi ci ba léegi dama ko gëm donc politiquement je l'avais porté dama ci daan wax à tel point que dama daan suul directeur bi parce que dama bëggoon mu fes parce que dama gëm ni que ay junni junni junni xale ci ki ma dénkoon projet bi amoon na yaakaar ci ni que mu embarqué alhamdulilah ba tey au moins tey plateau bi ma toog am na ku ni dem na kër Momar Sarr gis na mais dama koy nangu mais moom Ousmane Sonko mënuma ko ko baal parce que xam na ba mu koy wax yàq a tax mu def ko ba mu koy wax euh, taqal ma moo tax mu def ko moo tax xel xalaatul ñu naan ay baal kook baal ko parce que ki xam ca di wax bokkul ak ki xamul ca di wax ki xam ca di wax ñaara mën a nekk dafa sabab bañ a wax dëgg pour yàq deru moroomam beneen bi mooy muy wax ca xamul ca moom mënuñu ko boole ci ñuy wax ca xamuñu parce que même bu fekkee deful leneen ci àddunaam mais nangu nañ ñi ko ñun ñëpp ENA la génne loolu lañ fay jàng ministère des finances la doon liggéey loolu lañ fay liggéey te def na fa fukki at ak juróom. mais monsieur le ministre. dama bëggoon danañ ñëw ci côté boobu ci anam bu yaatu. Mhm. mais euh, dama am ñaari mbir est-ce que rapport. Mhm. am na wala amul muy benn. ci xam nga mu leer rek ci lu waaw xam nga dégg naa ci wax yu bari. Mhm. dégg naa ci sax kenn ku am na kenn ku ma gis mu naan non Mame Mbaye moom li tax mu porter plainte bu leen ko xaymale mooy euh, sàcc naa police ma jàpp waaye du gendarmerie kii def ni gendarmerie ma jàpp. mais c'est tout pour nous avons tu commencé avant ñuy wax waxi rapport nous avons que le domaine agricole le le public ko ci clameur publique la clameur publique clameur publique avons wax ju réseaux sociaux yi radios, les di sama xëy suba teel tekki sama ndomba tànk dem jeubal dimanche bataaxal premier ministre ne ko damay bàyyi damay démissioner ci gouvernement bi ba wax ji ñuy wax leer bu leeree pour bu la nexé ñu ñëw liggéeyaat. yow ya démissioner man ma démissioner on se rappelle mais monsieur le ministre. question. xaaral rek da da da waaw ci lay ñëw.

bañ ma laajee lutax dama ni len li ñuy wax ni bu féké amna man amna ci responsabilité parce que man joxé na demande d'explication directeur Prodac coordinateur Prodac ba woon Jean-Pierre Senghor jox naa ko ñetti demande d'explication par rapport ak ay recrutement ak par rapport ak masse salariale da ngay wax té yalla tax du won xaliss bu ñu luubal du won lenen par rapport ak grille la yónni naa fa IAF équivalent au IGF bi ministère a un rapport ma bind Amadou Ba temps je suis ministre des finances maniko IGF audité IGF at wala at ak Genwal. ba ministère bobu dem ministère du tourisme donc bi démissionné ñun ministère du tourisme ci jamono jooju ñu ni am na rapport IGF bu génn ma interpellé ko ma ne ko mais rapport IGF bi dafa génn mu ne ma non non non li ñuy wax nii dara amu ci noonu la ma ko tontoo conseil des ministres moom Amadou Ba actuel en tant que ministre des finances actuel premier ministre ma ne ko d'accord ma ni ko mais kon na IGF def démenti wax ni que lii génn nii du rapport parce que kenn signé wu quoi? munoo porter plainte parce que kenn signé wu quoi? Mon wax leneen parce que kenn signé wu quoi? ci dis bi am ay euh, militants ou PDS parce que tant temps yooyu tamit de politique bi metti woon na yu dem def dénonciation OFNAC OFNAC entendre ñi concerné woon ci projet boobu yëpp entendre moi parce que sama yoon nekku ci OFNAC def rapport donc man def naa rapport bi ñuy changer Jean Pierre man def naa rapport. mais rapport IGF moom mosuma ko gis. mais pourtant Amadou Ba tudd na la ci benn extrait bu ñu gis mu seet mu def ko ci benn télévision. Uh-huh. wax ni rapport bi génn na wala boog pré rapport bi génn na. yéen ñaar sax am ci contentieux boo am ngeen ko ci product la maa mbay ñaar. waaw mais eggaleel wax ji daggewu ko foofu de da ngay lim da ngay wax li Amadou Ba di wax. oui eggaleel li Amadou Ba Amadou daf nii la. waaw loolu la wax. xaaral dama lay oui dama lay Leral. leeral Amadou daf moom indil nañ ko pré rapport mais moom loolu mu ci gis gisu ci dara lu ma taqal te nee na man sax maa ko bind laaj ko loolu la wax de nee na moom li mu gis man amul dara lu ma ci taqal. lu waral kon sa frustration. xaaral xaaral parce que dama ne da nga ci frustré. déedéet ci mer. déedéet. oui non non xam nga da nga ci mer bi yëpp. oui non Amadou Ba moo ne Mame Mbaye Niang dafa daf ci mer. Euh, si dama ci mer la moo ci waral mer bi. mais li ma ci mer mooy dama ni ko bu fekkee ni que lii nga ma wax nii. parce que moom moo ma wax ni que amul. amul ma ne ko bindal démenti voilà. oui démenti boobu xëy na ci émission boobu la ko soog a defee. te période boobu yéen ñëpp suivre ngeen ni que heure bu ma demee. assemblée gisaguñu kayit bu koy démentir waaw xaaral rek xaaral xaaral kayit bu ko démentir kay am na. bi soo ko waxee police dafa def réquisition IGE IGF dinañ ci ñëw boo bëggee mu leer rek dinañ ci ñëw donc moom loolu ñu génne woon ca mënoo ko la kenn ca ku ko yóbbu tribunal doo am dëgg tey dinaa leen wax lu tax ku ko yóbbu tribunal doo am dëgg bi ci njëkk mooy loolu Birahim Seck publier ordre de service liñ ci wax amul ordre de service ku xam administre en tout cas Ousmane Sonko bi jànge naa amul droit def erreur boobu parce que jàng na ko xam na ni que ministre mënta signé ordre de service ca contrat bi taxawagul preuve li ma lay wax ordre de service bii ñu publier maa ngi nii gis nga yéen koy publier mm. lee ca kaw nële ca côté bële mooy numéro contrat bi contrat bu amul nan lañ koy numéroté am déet déedéet yow ordre service bi nga signé dañ ne la da nga ko signé avant contrat bi am waaw ordre service bi nga signee numéro contrat baa ngi ci kaw mooy ba ngay signé ordre service bu contrat bi am na donc loolu mooy wàllu bi njëkk a wane ni que du dëgg beneen wàll bi mooy nee nañ euh, man maa boole mën naa wax tur bi ah Maimouna Ndour fay ak benn ak Prodac mais loolu ku ko yóbbu tribunal ma ma tëj la parce que dina indi kayit yu wane ni que may Ndour a Prodac mosu koo fay. 63 millions yi. 63 millions yooyu. du xaalisu Prodac. 63 millions yooyu xaalisu euh, Moustapha Bala euh, nan non non kii Locafrique. Moustapha Khadim Ba Khadim Ba 63 millions yi. Khadim Ba moo joxe 31 million Daniel kii moom Green 2000. a 32 millions qui ci xaalisu boppam. parce que tout simplement dans une dem euh, campagne de vulgarisation des domaines agricoles Je n'ai pas man de budget ca télé yi da failles. donc il bénéfice yi des def mais génn leen ngeen jàppale campagne de ñuy def nous ñaar diviser par deux Qui fait 31 millions qui fait 32 millions donc ki bind kayit. ni ko xaalis boobu xaalisu argent public la ay dafa waroon na jaar ay passation marché waxul dëgg parce que du xaalisu nguur gi xaalisu nit ñooñu la lii bokk na ci li ma doon xaar rek ñu indi ko tribunal ma génne chèque yeeg génne engagement yëpp teg ni leen lii moo leen di wan ni ko foo la donc leneen law ca liir mais tooñ nga ma parce que du ma gestionnaire léegi ndax rapport am na wala rapport amul wala kii mais ay ñeenti rapport man de bàyyi naa fa ñe nee naa leen tey rapport OFNAC am na ci parce que OFNAC entendre na ñeneen man def naa rapport IAF jean bi ñu koy relever dama def rapport de présentation bi koy changé Amadou nee na am na benn rapport IGF man fekkuma fa mais rapport bi sax waxoon nañu déglu Jean-Pierre euh, xam nga ñooñu la ñu déglu est-ce que ah. man gis na ñu ni déglu nañ ma balaa ngay libérer imam dinaa dafa kaw bëgg laaj moo tax non parce que yëf yi dafay laaj waxi citoyenneté ak wax sa diggante ak yàlla ca mhm. foofu buñ fa eggee donte buub suub li ngay bëgg a doon sëriñ yëpp mhm. xëy na foofu werante bi doo fa mën a nekk mhm. donc man musuma wax ay waxi man dem naa ba ni leen rapport man naa am mu am naam amul man rapport bu ma jàpp kay laa bëgg ñu andi ko man kay yombal naa wax ji <laughs> man waxatuñu waxi rapport de te défendre tuma euh, le projet dont tu veux ko parce que j'ai wu mon projet donc ay nit dem ba ci naan non il rendra compte mais bo rendre compte da ngay rendre compte ci lo gérer ay nit naan non ay faute de gestion mais faute de gestion ki kay def moy ki géré donc juróom benni at ñuy wax légui li ma bal kenen ki journaliste yi koy njëkk wax nee la journaliste yi njëkk wax ni que rapport daf ma épinglé dama len yóbbu ci yoon parce que il faut nga marquer ko bokkul ak kii toog ngay toog ak euh, ngay toog ak baaba mu naan la waa mais vingt neuf milliards yi na leer danga ko koy bañ mais ki toog jàkkaarloog ñëpp ni moom yor na ko mi ngeeg moom téye ko ba veyu procès bi mu taxaw woote ñëw leen ah lii ay waxi caaxaan la kayit yëpp maa ngeeg moom ca mu yow mu wóor la wér xel la ni que li muy wax amul moom ci boppam moom mi koy wax xam na ni amul laajal li ngay laaj imam ma bàyyi la ñu soufflé ñu soufflé non non cest hmm? egg nañ foo xam ni ñi ñi ñi ngi gis lu dul dëgg ñi xam-xam ni que lii du dëgg hmm. te duñu wax ni que lii du dëgg nit di jàppale moroomu nitam ci loo xam ni wóor na ni ko du dëgg mu mooy ci di continuer di wax loolu day wane ni que société bi ñu nekk ci tànk yi mu tegu hmm. du tànk yu baax day wane ni que société bi ñu nekk ñi bëgg a jiite xamuñu wala buñ xamee it dëgguwuñu buñ dëgguwul it jubuñu parce que nit ku maanduwul rek mooy xam ni que lii du dëgg mais mu koy wax pour yàq xelu mbooloo di ko wax pour yàq euh, euh, euh, deru nit moroomu nitam te tegoo ko ci lenn lu dul sa coobare bakkan ak bëgg féete kaw loolu day fekki aaya bi aaya alxuraan buy wax ni que nit lépp lu mu def ci dund doomu aadama la ñu wax lépp lu mu def ci dund yàlla sax daf ko waat maa ngi giñ ci waxtu ni que doomu aadama lépp lu mu def pert na ba mu des ki gëm tey julli di doxe dëgg ci am mucc wal asr inna insana la fi xusr illa allazina amanu ba mu des ñi gëm wa amilu saalihaati tey julli watawaasaw bil xaq ca nekk ci dëgg ca di ko pratiquer watawaasaw bil sabr ca ànd ak muñ egg nañ ci jamono joo xam citoyenneté mënatul génn ak ngëm-ngëm bu faire ni que fi ñu bëgg a sori. dama koy wax parce que dernier conseil des ministres bi ñuy passé comme après ministre de l'éducation, je maa dit, tout le monde maa ngay jéggalu dina ci indi ay explications parce que président de la république qui ci suñu programme yoonu côté, dugal enseignement religieuse ci école yi daf ci beaucoup. mais taille le gën n'est que lu dëggu mooy ñu jàngal yi parce que dina leen ramener ci bëgg dëgg te citoyen bu basé ci dëgg kenn dootu la nax mm-hmm. wala sax buñ la naxee boo ximmili ko dinga bàyyee nax ya topp si donc imam defe naa seen liggéey bokk na ci citoyen sénégalais biñ bëgg a indi bu ngëm-ngëm laluwul ci li nekk ci suufam bu ngëm-ngëm nekkul base u citoyenneté bi defe naa dañuy tabax rek waaye comme tubaab bi lañuy ñuy mujje foog ngëm-ngëm am ci ngëm-ngëm nag diine la fii diine jullit la ak christianisme ñoom ñaar ñoo ñaari yooyu yëpp ci jikko yu baax ak njub ak njubal la ñuy nekk donc man loolu moo taxoon mu bëgg fi tey imam parce que certes ñi ngi def concours alxuraan di wax waaye tamit alxuraan yàlla wàccewu ko fi rek pour ñu koy tari sànq yaa ngi def différence entre islam ak politique islam moo njëkk politique parce que les gens qui ji que luddul, ñi politique islamique Nous, ñun Sénégal li ëpp ci république lañ république bu parce que république boo xamni ñi gëm foi lañ bëgg préserver ñaari yi nga composé population donc la majorité pratiquement absolue dañoo bëgg ci ak mais pas ci société boo xam ne dañuy naxaate pas société boo xam ne ñi xamul ñooy wax pas société boo xam ne ñi xam tiital nañ leen ba ñu pas société boo xam ne da ngay ragal a gis dëgg teg ci sa baaraam ni lii mooy dëgg donte di ci ah, responsabilité boobu ngeen am ak buñ gisee loo xam du ñu ni lii du noonu ak lu mu metti metti metti ak lu mu jar jar jar maa ngi remercier bu baax ñëpp sax la ñuy remercier kilifa diine yëpp mais particulièrement Baye Niass ci courage bi mu am di assumer ay propos donte day wax deug dal ni lii dëgg la donte nit ñi dinañ ma wax parce que nak ala kulliyaal muju muju muju gi nit ki dong ak bamélam te bu éggé ci bamélam li deug ak lu deug rek la ñuy xam amul kenen ku la fay fekk donc responsabilité bobu ngeen ci am moy diiné ji war nañ ko gëna mëna wasaré te man gëm na ni njiitu réew mi décision bobu mu jël pour ñu xol nan lañuy ñuy jangum diiné

l'élection présidentielle ce procès ak Ousmane Sonko dafa une envergure internationale donc nous avons trois séquences nous avons ñu rek ñu dëggal publicité bu ndaw rek dellu la publicité bi ñëw publicité après nous avons commencé deux minutes de publicité nous avons dellu bu mag bi te tubaab bi naan ko ferme intégré al maktoum al amin moo leen delloo si cosaanu sow pii képp ku bëgg soow piir demal seeti waa ferme intégré Al Maktoum Al Amin dañoo am suñuy nag di bay ñax ma nag yay lekk ba noppi di ratt meew ma ci condition yi gën képp ku bëgg soow piir piir laa wax de ci wakaam fi ci ndakaaru wooteel ci 76 419 26 57 ci station golf ba nekk ci cité douane 78 140 14 14 disponible na tamit ci Auchan yi ak ci EDK Touba ak li ko wër 77 424 47 wala 76 553 am na tamit mbaquusu soow piir bu ñu boolee ak suusal suusal mooy cere bu am dégg-dégg ak suukar ah cëm kon nag woote leen gaaw ca piir ba la jéeg boo koy seet si يوم وصل وكم وصداك متيكو بريت بنش مذاك ترى قبل شلاي نالي لكو داك موي مرمي ديك غلن من يوديكو باك مو منش خوي خيولا مي بوكو نياك اي بوكو نياك خيولا مي بوكو نياك مو منش بيب خيطو ترانغا من بنش مو مدوي جي ترانغا بنش في من ah, ini kebo ya, hitam. doo bàyyi ma servir la waaw waaw li mu saf ku ko naan na ko xam yow ma sa ku ko mos dàkkam ci ko variété man sama dàkkal moom rek lay topp ma sa ku ko mos dàkkam ci ko variété ak pënc rek teraanga fii la fekk baax Kabirex indina na am Sénégal Kabirex Kër Kabirex Kaulak, Kabirex Dakar deux voies Sacré-Cœur wetu boulangerie jaune réfrigérateur side by side Boulanger 730 000 léegi 549 000 donc micro-ondes à partir de 49 000 cuisinière à partir de 99 000 francs Manam moins 50 000 francs Aïe fraise à partir de 35 000 francs Aïe grillade Aïe autocuiseur Aïe mixeur blender 3 en 1 frigo bar marque Beko à partir de 99 000 francs. Aïe téléviseur 32 pouces Smart à partir de 89 000 francs. Aïe téléviseur 65 pouces à partir de 340 000 francs. Aïe téléphone de marque Energizer avec un grand écran de 7.1 pouces, batterie 6000 mAh et une mémoire extensible de 128 Go. Emmanuel man Gaming Banak High PlayStation 5 plus CD offert. PlayStation 4 plus CD offert. Xbox série X plus CD offert. surveillance X-Vision. 4 caméras plus disque dur. nga surveiller fep weeru Corgi. Boulen bu leen kenn Sacré Cœur Takalok au 77 800 00 30 le 33 868 95 95. Kabirex Kër Massar es tout Sedima Mabi. 33 878 85 85 ou le Kaulak Saloum Saloum yi Tu Tu mets station Baba Gay. 33 941 81 80 88 suñu whatsapp 77 800 00 30 wala nga ci suñu site www.kabirex.com e ay Kabirex ci weeru koor gi li mës Kabirex your electronic destination. Exaltez vos sens et savourez l'univers de Sénico Création. Succomber aux multiples saveurs et goûts d'une gamme de produits variés et alléchants. Plongez dans le monde du petit déjeuner, sans modération. De l'arachide, de la noisette et du beurre pour nos chocolats. Un excellent lait crémeux pour une saveur incomparable. C'est Nico. C'est du chocolat fondant et du beurre onctueux pour un moment de plaisir avec nos produits frais. Faites-vous emporter par la créativité et l'innovation culinaire. Prenez le contrôle de votre cuisine et devenez votre propre chef. C'est Nous choisissons le meilleur pour vous, pour un quotidien rempli de bonheur et de douceur. dama boutique dafa dem jëli qualité indil la ko bazin 100 pour cent coton ñu naan ko Fousnéguer imminent. Bazin bu am brillance bu parfait bazin bo xam troisième ak quatrième lavage day am brillance le parfum revient en frottant le tissu grâce à sa nouvelle technologie même six mois après le lavage voyez, Bazin Fousséguer yamul y de ma boutique fa dem jeli qualité indil la Vienna 64 de coton 36 de viscose brillant mu am motif yu motif couleur yo xam ni ay motif motif pour gold ak motif pour jigen yo xamni Mou am trois dimensions yohamni. Yep rafraîchissante pour la peau brillance beau parfaite même beaucoup fauté fóotee yon. bazin Noblesse net. moy daj de pays. 55 de coton 45 de viscose bon noppi basin bazin bay couleur ba vif tay respirer agréable sur la peau lol lol bazin Fussnagher Noblesse dawal gaw la ma boutique avenue Cheikh Ahmadou Bamba HLM jano ak téléphone 77 507 31 21 wala 77 972 96 46 ak Lama boutique Allez Léopold Sédar Senghor wala Lama boutique deux voix HLM Chey Y, Lama boutique Lichibazan ci Amato À ak produit Jawda rek du jug ci duñu bégal aladi mahtar at ak njabootam Jawda rek le jëfëndiko jaouda Jawda rek nek seen Cholal xol xolal li amna na lait entier UHT bi nga xamni mo xew ci jamono jus pour map pour xalé D'un bug bëgg dessert rek a ah, cëm dessert ci Jawda la fekk yi xolal ma yi dessert li Jawda la waaye de jaouda ak presse up ci parfum yu a ah xalé yi nag kenn fàttewu Waouh. waaw waaw de croissant essence pour xale yaxam gën a dëgër mu màgg màgg gu jaar yoon te baax lool jaaree ko ak meewu jawda waaye nag lunch woon de bëf bii amul nu mu neexewul ak jawda daal suñu santé day gën a baax jawda moom la ñu taamu fépp ci àdduna bi delsiwat ci plateau iftar, di dalal monsieur le ministre Mame Mbaye ah, ki nga xamni ne moom di Alaaji Baba Ndiaye àndandoog Alaaji Cheikh Sall monsieur le ministre ñoo ngi doon tej léegi léegi di def une petite pause publicitaire di la wax ni ah, ce procès ak Ousmane Sonko dafa am ben connotation politique dans l'entendement général ni ko nit yi déggee ni ko nit yi jàppee mooy adversaire politique bu ngeen bëgg fa faagaagal yow ak sa njoñ yow ak wa APR lolo waral ciow li yëpp ci kaw Ousmane Sonko. waaw jërëjëf xam nga bon euh, da nga naan amna ñen ñuko xalat surtout la majorité du pays pense non, comme ça. pas la majorité du pays. une une ñi, grande majorité pense comme ça. dedet ñi and ak mom mm-hmm. lolu lañu bëgg wax sénégalais waye kuy wax ca yalla tax te ngay suivre actualité. wax nañ fi ni que daan nañ ci seen yeneen moroom journaliste wax nañ ci ni que dem naa ci ay ak ay télé procès wax nañ ci dem naa ci ak ay situ internet procès moom mooy homme politique bu am envergure bi mu am bi njëkk a ñëw wax ko ca ba mu koy wax njàngam ak jaar-jaaram waroon na tax mu xam ni que lii du dëgg parce que yow munoo wax ni que da ngay jiite parti nga wax ñëpp ni ko leader politique nga sax xam-xam bënn na ca la nga jàng man tey kenn du ma baal ma juum ci ay procédure aviation mën nañ ma baal ma juum ci ay procédure code du tourisme xel war na ko mën a nangu dañ naan non moom dañ ko fa teg rek responsabilité la mais ci ay procédure aviation conception des aéroports gestion technique d'un aéroport gestion technique de l'espace aérien ay avion yu nekk en approche avion nan lay def ba ba du laalanteeg moromam ko loolu kenn du ma ko ci baal parce que loolu laa jàng loolu laa mën avocat bi jàng droit duñ ko baal mënuñu ko xel du nangu mu mu ni dafa juum donc moom wàll woowu la jàng ci wàllu woowu la doon liggéey donc mënuñu ko xel mënta nangu ni ko mu def erreur yooyu damay fàttali ni que problème bu que je ko ak président Idrissa Seck. ah oui. en 2019 bi élection yi desee sept mois ma le ministre du tourisme Je ngi damay ré parce que damay. parce que c'est un allié de non non damay ré parce que contexte est sax mo compliqué bi ni bobu Idrissa taxawna créer coalition triple XL. est 2019. ci benn point de presse bu mu doon def mu ni le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang def pression ci directeur hôtel Palm Beach pour ñu bañ a euh, def sen, sen seen conférence de presse ba mu ko waxee ñu indil ma ko man directeur hôtel bi xam naa ko donte xam naa ni ku bëgg Idrissa la ku ko jege la ma xëy suba teel yónnee ko huissier ne ko est-ce que man dama la woo ne la bul luwe Idrissa mu tontu def déedéet ma yónnee keneen ki huissier ni ko est-ce que dama ma def jël citation directe woo samay huissier ni leen taxaw leen buntu kër Idrissa na jot citation bi dañuy dem tribunal pourtant boobu amul woon coow lu toll nii moom ci coobare boppam moo nangu ni juum na ma dem retirer sama plainte dem toog. Ousmane Sonko bu nangu na du yegg ci mais mais mais amul benn nit buy juum. buy juum mm. ñëw ni la damaa juum nga ni déedéet mais moom juum boobu lañ ko nangulul parce que mooy boo jëlee ci li ma la wax ñu tax nga nangul ko Idi parce que Idi ci conférence de presse la toog wax ko nee na dañ ko koo wax mu ni mi ngi jéggulu dafa defoon ni ko loolu moo am mais il retire ses propos ma dem sama yoon boo dégloo li ma la wax sànq mm. nee naa la ñoom commencé wuñ ak man foofu fi ñu commencé ak man moy assemblée nationale votre budget ministère du tourisme bi passé néna le député mo yëkëti rapport néna rapport la yëkëti ay feuillam ni li rapport la bubs yow mën naa nangu nga juum ci rapport daal ni li rapport la mais ñom mënuma nangu ñu juum ci rapport parce que rapport ñun ñëpp xam nañ nañ lay mel ñu ñëpp xam nañ nan la rapport li mel loolu ñuy wax ci internet bi munoo wax ni que rapport la parce que yow man nga xëy de man li may gis ci moom ci internet bu ma ko publier wax ko. Hmm. donc lu ñu préparé la assemblée la ñu ñëw jiiñ ma ko ma tontu foofu la ma fa yoon may laa def mooy foofu mënumaa yóbbu kenn police mënumaa yóbbu kenn tribunal ma tontu fexe ba sama tontu jib ma ni leen amul benn rapport bu ngeen indi ñu def ci ñetti fan moom ci boppam moo génnaat daan ni bërki démb am na député am na ministre bu nekk assemblée déggul tubaab déggul dara xamul dara nee rapport mosu ko jàpp waxul dëgg ñoom dañoo defe ne ni que ah, ñun xam ñun këyit yëpp lañ téye li ñu jaaxal sax du ñoom yéen këyit lañ téye mais kan moo leen koy jox moom baatam ba mu ko waxee mais egg na foo xam ni sax yow journaliste yi yeneen yi bañ ko waxee eggu fa man à part politique damaa am métier mooy li ma la wax lii ma nekk nii bu jeexee mais man ak yow mënaguñ dem retraite ñun ñi fi toog ñi ñëpp mënaguñ dem retraite yàlla nag moo yor bakkan mais am nañ mbëbëtu liggéey ci leneen te damaa am mbëbëtu dem liggéey ci leneen bitim réew te wax jooju daf lay topp dañ naan la mais yow fa nga ba nga ba ngay jiitee ministre parce que sa CV ngay joxe nekkoon naa ministre nekkoon naa ministre donc mën naa dem OAC yi mën naa def li dañ naan la waa mais yow ba ngay nekk ministre a mag nee na la yow am na rapport bu la épinglé loo fay nekk di wax du dëgg ñooñu xamuñu du dëgg dañ naan la ba mu la ko waxee lu tax demoo ca yoon léegi lan moo ciy politique man ba ma koy porter plainte gisoo suñ benn waa parti man sama njaboot sama rak sama jabar suñu waa kër ak samay xarit ñooy ànd politique bu ci bëgg a dugg ma ne la bu ci dugg waaw mais déedéet parce que mom moo ko ci politique parce que moom lépp lu ko dal bëgg na ko yóbbu ci politique eh. tamit affaire dafay point de presse mais déedéet parce que li am mhm. sa tamit baax na boo gis nañ di def point de presse da nga war wax ni que gis nañ ay nax ay ay caaxaan la Macky Sall mu ma ko bëgg a xeexe Macky moo toog wax ko ni ko waxal jiiñal mambay Macky Sall moo wax ni ko heure bii yónnil sa député Macky Sall moo ko wax ni que waxal ni que yaa ngi rapport IGE Macky Sall moo ni ko demal ba ci biir nga ni rapport IGF e la ca rapport amul moom ci boppam nee na sa moroomu jullit boo ko dee jiiñ dara dafay fekk nga yor firnde yi ca buñ la waxee nga indi firnde yi waaye amoo droit sax jiiñ ko ko dem di wëri ba nii ñuy waxee nii du livre Birahim Seck du leneen du leneen rapport déposé wu ko dinaa leen wax nag lu tax rapport déposé wu ko bi ma ko porté plainte ba mu njëkkee dem police daf ni leen xamul lu tax ñu woo ko fi police ni ko Mame Mbaye moo la porté plainte nee na da ko waxal ni que am nga rapport IGE mun leen xawma woon ni que loolu moom ma fi indi maa ngi dem ba suba ma indi samay preuve ak firnde yi ca suba sa mu ñëw ca suba sa heure ba muy ñëw 10 heures ba muy ñëw mi ngi tombe ak police di entendre ñaari député euh, yu pur yi amoon problème assemblée def leen a nëbbutu dafa lëmasu ba kenn xàmmeewu ko mu romb kilifa yeew yi nekkoon foofu yëpp kenn xàmmeewu ko ci mu dugg inspecteur bi auditionné ko mu ne ko man maa ko wax mais dama juum bëgguma woon wax IGE IGF laa bëggoon a wax mu ne ko ana rapportu IGF bi mu ne ko mi ngi ak man mais sama preuve yëpp tribunal laa koy yóbbu kooku daal di def pv bi mu defee PVM daa di bind IGE ni leen est-ce que da ngeen am rapport ci Mambay IGE ni ko déedéet mu bind IGF e ni leen est-ce que da ngeen am rapport Prodac ñooñu ni amuñu rapport Prodac benn enquête bu bu eggul la donc rapport amul amuñu rapport mu bind daal ni sonk Sonko nee na moo wax lii moom mi ngi ak ay firndeem bu demee tribunal dina ko indi mais ñun ci enquête bi ñu enquête laaj nañ IGF e nee na amul rapport laaj nañ IGF nee na amul rapport comme que ñaar yooyu la fi tudd ñaar yooyu yëpp nee nañ amuñu rapport ñu bind ko ci kayit bi yónnee procureur procureur de citation man ba may porter plainte wax dëgg yàlla ci loolu ci biir wax ji tooñ nañ ci procureur man ba may porter plainte juróomi euh, juróomi délit lañuy wax xaw ma juróomi chef d'accusation chef d'accusation l'avocat est visé mm. diffusion de fausses nouvelles parce que daf rapport IGE le rapport IGE IGE bu passation de service donc diffusion de fausses nouvelles rapport IGF man suis gis inspecteur IGF a un rapport ci enquête donc diffusion de fausses nouvelles faux et usage de faux Le rapport IGF est visé parce que man suis gis ku IGF ci un rapport pour ma je dinañ ma wax que la la jàppee fii lii ñu la la diffamation ak injure publique donc diffusion de fausses nouvelles diffamation faux usage de faux faux intellectuel ak diffusion de fausses nouvelles procureur Wagny, retenir Niat, dans le faux usage de faux, avec injure publique, avec diffamation, la topé. Donc, mon procureur Wagny, il n'a pas de Nous sommes au tribunal, nous convoquons les deux. Quand nous convoquons les deux, nous avons que nous que nous avons convocation. Déposer le nous avons le droit. Nous avons le droit. yoon ni am na droit dàq ko ñu dàq ko fukki fan ak juróom beneen ba mu ñëw jël fanweeri avocat ak benn daan ni non fanweeri avocat ak benn yi il faut ñu xool nuñ koy layale c'est son droit mais am gis nga euh, Baba boo bëggee ñu waxtaan c'est pas parce que journalist que dañuy xool ñu ñoo toog dañuy xool di yanu maanaam xam nga boo nee nit am naa rapport bu la épinglé bu fekkoon ni ko dëgg la tribunal sax mënoon na faa am bañ am yoon ba ko police woowee bu fekkoon ni ko jox na leen rapport kon duñ egg tribunal. jar xaar c'est son droit mais dama lay wax li xel nangu. d'accord jarul juróom benn avocat jarul benn avocat. moom ci boppam bu fekkoon ni que loolu muy wax dëgg la. day ñëw juge bi ni ko waa yow yaa nii boo ñëwee ci man ngay indi rapport mu ni bu xeet rapport bi teg.

mais ñu ñëpp xam nañ rapport nan lay mel amul recel de document parce que procureur xam na ni amul kay kañ wax ni que moo def rapport bi nee na rapport amul yow kay boo indee rapport mooy faux la wala la nga wax ni que yor nga rapport yoroo ko ñaar rek a mën a nekk déjà fen wi moom am na parce que ka nga wax ni que moo defar rapport moom bind na kayit procureur nee na ko rapport amul yow boo indee kayit loolu recel la wala faux la. faux usage de faux. waaw euh, kon donc ñi wax naan non rapport amna ay waru ko indi ay recel de document du deug IGF nee rapport amul. d'accord donc mom lam yor ci téléphone am. leneen la. dama bëggoon monsieur le ministre parce que euh, au sortir du procès le 30 mars da nga ne yow. am nga satisfaction ci lu ñu rang Sédar. waaw ñu seetal Sédar ci coow li. Mhm. mais ñu gis ni da nga def appel lan mo waral appel waaw loolu tamit lu baax a leeral la nee na xam naa fii dina am benn xale bu ma sama rakk la nag sama rakk la Babacar Anamu sama rakk la wax dëgg yàlla ku sonnu ci ku sonn ci man la ku ma bëgg la mhm. euh, moom moo bind ci page Twitter man aw ma Twitter aw ma Facebook aw ma WhatsApp am naa WhatsApp mais numéro bu particulier la donc du man benn damay leeral parce que gis na après ñu bari di wax ni que kii tweet ki ko def sama rakk la Mon moo ko yor génn na parce que nous ñëpp pendant affaire bi affaire na leen moom mooy animé page ou page ou Facebook yi ñu yor page Twitter page Instagram man moderne man noonu moom moom moderne il a jugé nécessaire mu def ko bon ça arrive Ça me consulter Ça sans mu consulter ma mm. mais amul problème mais amel naa dëgg waa réew mi mm. du man mais mi mu ma li nga wax kontaanoon naa torop bi ma génnee ci procès bi parce que li ma tax a kontaan mooy ñetti weer Ousmane Sonko naan non rapport bi am na ay nitam naan rapport bi am na ñeneen ñi koy jàppale naan euh, police a ko jàpp mu weddi ni gendarmerie la ca rapport amul mais tribunal ñu fa génnee tribunal nee na Ousmane Sonko amul rapport déposé wu fa rapport donc waxul dëgg loolu koy naa ci kontaan léegi nag yoon dafa am nu mu tëddee nu yoon tëddee

daan ni waaw Ousmane Sonko dan nañ ko ñaari weer. dina fay 200 millions Mame mais jugement bi génnagul. li tax avocat yi di def loolu c'est pour xol ndax ñom li ñu laaj juge bi yépp mi ngi ci kayit bi mais tay wax deug yalla avocat yi juumuñu ñom ñi xam seen liggéey parce que kayit bi liñ ci doon xaar lepp ñun nekku ci juge bi defu ci mesure juge bi manque Wa, lu manqué lan ci manqué li ci exécution provisoire li manqué amul amende li ci manqué millions yi li ci manqué ñun d'accord ñu ci 200 millions parce que dommage donc xel nanguna ñu appel manque. mo ñu appel d'accord procureur bu defé appel yoonu procureur le procureur ministère public ca xel war naa mën a nangu procureur def appel mm-hmm. li tax procureur wala mën a def appel mooy ñun ñëpp gis nañ procès bi nan la demee wax nañ jiiñ nañ kuréel wu réew mi loo xam ni nee nañ def nañ rapport ca defuñu rapport ca atte bi li ci am musta am ci yeneen atte mm-hmm. donc yoon def na may na procureur Sénégal dañ doon xaar baaba dara waaw muy euh, dañoo atte atte bu jur coow ci réew mi may indi fi yàqu-yàqu bu bëree bari Euh, daanaka sax réew mi taxaw tàggatee mi demul demul dikkul yéen yenn yoon nguur gi bu demee ba atte mu mu fare ca boor ne seetal nañu see li nga xam te ni moo di sab der mm-hmm. ndax euh, wootewaat beneen ay procès ñuy mm-hmm. dundaat dund yu mel noonu ndax loolu baax na ci Sénégal est-ce que yéen ñi nga xam ne bu fekkee ne jàmm rek moo tax euh, mbiri jug ak leeral moo naa yam foofu xam nga ndax mën nañoo dundaat événement yi boo xalaatee noonu mooy yaa ngi teg réew mi ci yoon wu baaxul parce que buñ nee yoon ci am réew ñëpp la yoon war a féete kaw déjà li njëkkut a normal hmm. mooy réew mi di am problème yu mel noonu te man maa ngi leen di géñal ci alxuraan incha allahu rabbi lu mel noonu moom dootu fi am loolu mooy bi ci topp bi mooy bi ci topp beneen bi nit ak koo mënti doon bu la yoon woowee da ngaa war a dem wuyu ji nit ak koo mën ci doon nañ xool lii dëgg yéen kii nee na leen am na rapport moom woo na ci ay xale ba ñaari bakkan rot ñu taal ci ay butigu jàmbur ci loo xam ni xam nañ ni du dëgg moom ci boppam xam na ni du dëgg ñi mu àndal xam nañ ni du dëgg au lieu ñu yedd kooku ñuy wax naan noonu jàmmi réew mi mooy yoon di dox na mu war a doxe loolu mooy jàmmi réew mi jàmmi réew mi mooy ku wàcc yoon yoon dal sa kaw jàmmi réew mi mooy yoon bañ am xàjj ak seen jàmmi réew mi mooy ak koo mënti doon ak loo mënti def ak fu mu la mënti fekk ak foo man toll boo defee lu sudul noonu yoon dal sa kaw buñ xool naan non ay dañuy faagaagal faagaagaluñ kenn moom moo ko dem wax te ba mu koy wax xam na ni dafa bëgg réew mi ba mu koy wax xam na ni am na ñu mu àndal ñu ko yéene réew mi ba mu koy wax xam na ni am na programme bu mu bëgg a jël réew mi teewul moom mu xam ni que li muy wax amul du dëgg mu wax ko donc lu ko ci fekk moom dong la. appel bi est-ce que du jëm foofu. parce que deux deux deux mois lañ ko door sursi. Mm-hmm. ak amende dommage intérêt deux cent mille deux millions. Mm-hmm. te boo xoolee comme ma jël exemple sunu naataangoo yu laas yi six mois dañ leen laal lañ teg seen kaw ak sursi ak amende yoo xam ne ay millions la. Mm-hmm. alors est-ce que tey comme li euh, yoon wax. ci moom. danga jàpp ne deux mois dafa tuuti ba nga xam ne dañ ko war a yokk euh, juróom benn weer te loolu bu amee day gàllankoor bokkam ci élection présidentielle 2024 yi. déedéet xam nga yow loolu waral yi tax jàpp ne peut être bi loolu la visé. non yow xam nga yow yaay xool loolu. wala ñi far ak moom ñooy jéem a xalaat loolu man li may gis. mooy am na que am na sénégalais bu jóg tuumaal beneen moroomu sénégalais ci loo xam ne du dëgg yoon nee na du dëgg. léegi ndax yoon lam ko ca teg méngoo na ak lam daan teg ñeneen ñi loolu ñuy wax droit ñoo koy wax loolu ñuy wax juge ñoo koy wax loolu ñim mu cërale ñoo koy wax mais dama ni ak lépp lu ko fa mënti dal na ñu jàpp ni que kenn tegu ko ko lu dul boppam ak képp ku ci mënti yàqule ak képp ku ci lu ci réew mi mën a am jafe nañ jàpp ni que kenn créé wu ko lu dul moom parce que moom moo wax moom mooy woote moom moo nax ñi mu àndal ni leen yor naa ay firnde buñ demee du ngeen ruus moom moo woo ay ndaw yu am yaakaar ci moom ni leen génn leen ngay toj mbedd mi parce que ñii dañ maa bëgg faagaagal ci wax bu ma wax ca rapport am na ba mu demee tribunal moom moo fa tegul rapport donc lépp lu ko ci fekk kenn tegu ko ko ku dul boppam léegi nag réew mi est-ce que sañ nañu wax dëgg walla sañu ñuy wax dëgg mais nan la ñuy gisee koo xam ni moom li mu wax amul daan nañ ci ay moroomam ci ginnaaw ñu bàyyi fi loolu lépp teguñu suñu bët lenn lu dul ñii dañ ko bëgg a faagaagal. yaa ngi doon xaar deux mois yi. man man man man xam nga. man li ma ci doon ut. parce que parce que ñu bëri dañoo amoon yaakaar ni. Mhm. projet bi bokk na ci li nga xam ne mën na tax moom du bokk ci élection yi parce que jàpp nañu peut-être projet Adji Sarr bi ak bii ni mu demee du benn. déedéet du crédible ci ñoom pour ñu faagaagal un adversaire politique en 2024 du du question du question crédible. oui. lee ngay wax. ci biir néeg la ame moom ak kam ko seqal rek ñoo ciy seede ak yàlla keneen ku ci wax leneen sa version nga joxe lii mu seq ak man ci mbedd mi la amee donc leneen lu ko ci dal bu fekkoon ni que musuñu cee daaneel nit musuñu cee tëj nit musuñu cee weddi nit ñu mën a wax mais yow say naataango ñett daan nañ leen ci yeneen télé négocier yeneen journal négocier nangu ni que li moom mu ñëw wax ko ni moom am na ko wax dëgg yàlla ku wax rek ca yàlla tax xam ni moom moo ci dugal boppam léegi nag ku yaakaar ni que dangaa nekk à la veille dangaa nekk kandidaa ba lu la neex ngay def en tout cas boo dajee ci ku mel ni man di nga dëpp parce que wóor na ma ni li may wax dëgg la parce que wóor na ni ci li ma taxaw dëgg la ca giñ naa ko ci yàlla bu génne woon rapport man ma tànk sama bop ni procureur tëj ma ci kasso bi parce que fii fii du sama Palace. deug la monsieur le ministre monsieur le ministre dañuy dalu ci un peu en arrière. Mhm. bu ñuy ñew ci élection législative candidat nga woon mairie Dakar Plateau. wa non déedéet pas mairie Dakar Plateau mairie Dakar ville. ville de Dakar mairie ville de Dakar dama djum mhm. mairie ville de Dakar. élection locale. élection euh, yu mujj yi. Mhm. mairie ville de Dakar. Euh, danaka battre nga campagne. Euh, mais ñi nga xamni ki nga xamni mom mo gagner gagné.

man man rek ak samay xarit ak ñi ñu àndal ñoo dem campagne marché Barthélemy machine yu yeewi Khalifa ko ñeneen ñëpp ñoo ko boot yéene naa ko nag bu baax le fekk que mu gagné parce que est de ma génération xam naa ko sama xarit la donc yéene naa ko mu gagné mais loolu moom loolu moo nekkoon ci ginnaaw man expérience la woon. waaw mais mais lan moo la. waaw mais parce que parce que APR dafa amoon candidat. surtout tout xam man je suis libre nag man foofu laa utee moo tax ñiy jàpp ni que comme di xalaat naan ay dafay faagaagal kii ak nekkuma ci ay waxi faagaagal man du ma faagaagal doomu aadama parce que sama ngëm-ngëm mayuma may faagaagal doomu aadama parce que li li li samp sama ngëm-ngëm li tax ñii ñi defe ne dafa am fit dafa ñeme wallahi la azim du dara damaa gëm ni ko bu ñëpp dajaloo woon di ma fexeel lu bon te yàlla àndu ci du sotti comme bu ñepp dajalo won di ma bëggal lu baax du am dama gëm ni sama jaar-jaar deux mois dama dama dem kër président je peux me permettre ma wax avant koor gi deux mois trois mois ma ñëw fa timis fekk mu jiite ñu julli ñu julli ba pare muy ñaan quoi ñuy ñaan ñaan ba pare ñu wax li ñuy wax di génn bi ma génnee këram bi may jàdd am lu ñëw sama xel ma ni ñi yeewoo ci réew mi ñëpp ku ci yeewu gis Macky Sall la ngay bëgg a def parce que jàpp nga ni ci sam xel boo ko gisee sa aajo mën naa faju man man moom ñoo julli léegi moom mi ngi ñaan donc ay aajoom fajuwul am na ku muy ñaan donc Macky Sall joxewul kooku mooy joxe munoo am yaqin bu mel noonu di ragal lu nit di fexe munoo am yaqin bu mel noonu di euh, laam-laamee ni sa moroomu nit mënal na la dara sa moroomu nit mi ngi lay mënal dara bu fekkee teguwoo ci dëgg sa moroomu nit mi ngi lay mën a jot faire qu'elle ni que wéeruwoo ci yalla ma question c'est encore une fois. ta question c'est pourquoi cette division. non non. Hein? pourquoi cette division au sein de la paire il ngi une ak président te pourtant beau le président da nga waroon. ànd ak question au président du question dégal président. wa non xam nga yaa ngi ak mom expliquer. ma euh, déggul ma wax la. man kay xam nga man du ma du ma la wanal baat man ragaluma li may wax mm-hmm. man dinaa la ko wax ba mu leer bismillah foofu du ànd ak président te wax naa ko nee naa leen du problème mu ànd ak président man homme politique la bi may commencé ci politique ak moom laa commencé ndo mais lii utaluñ ko ko moom lii samay moroom ñooy natt seen bopp am nañu coalition àndal am ñu ànd ñoom rek mais dinaa essayer man fii ñu ngi fi gis ñu egg ca fañ jëm yëpp bu ñu la waxee ñaata yoon la ñu juum ñaata yoon la ñu daanu boo ko waññee duñ egg ca ca cat ba mais nit koo gis dafa am sabab am fooy bëgg a dem am noo fay egge du ñàkk déggal du ñàkk leneen man li ma li ma gëmoon sama xol ca moom laa gëm ba léegi mooy que man sama bopp laa gënoon yéene mairie Dakar que keneen ki du question ni ko dama ko bañ man liñ may xase xanaa peut-être liñ ma li ma ñu bari daan daan suñu waa parti ah yow waa parti bi rek ngay dóor yow waa parti bi rek ngay xulool parce que bu ma d'accordul dama naan d'accordu ma mais bu ma ànd bu ma ci bu ma d'accordee nag ñëppay xam ni d'accord naa bu ma ci bokkee moom ñëppay xam ni bokk naa ci takk ci rip wala set ci wecc ci lu ma ànd mm-hmm. loolu la mais loolu président jiitewu ko président li muy jiite mooy boppu réew mi la heure bu dee ut bopp ah, réew mi xam nga président daa tànn candidat Dakar waaw mais bu tànnee candidat man ma tànn sama bopp man topp ma président ci lépp lu ko neex lépp di président kay man ci li may faral di leeral xam nga prési euh, président Macky Sall ba muy ba muy créé parti dafa am ay nit yum dem seet man damay faral di fàttali ni que man bokkuma ci ñi mu seeti man maa indi sama bopp <laughs> ñëw fekk ko mu toog ma ni ko heure boo bëggee samp dara pour yor réew mi boole ma ci bëgg naa ci boole sama bopp dinaa ci def sama doole dinaa ci def sama xalaat dinaa ci def sama taxawaay boobu ba léegi wàccewu ma ko amul xeex bu mu sumb te jiitewuma ko walla ma fës ci parce loolu la égue mon, moom dem na malheureusement pour moi heureusement pour lui yalla yóbbu na suñuy relation fo xam ne na politique weesu na politique mm-hmm. parce que dama koy faral di wax man fam dama ko nangu avant yalla diko jox li ma and ak mom yalla jox ko li tey jii nii bu ma ci mom lo xam matatuma kilifa billahi la ilaha illaahu kon maniko ne ko ma kilifa mais may metti loolu yenn saa may dégg nit ñi di wax ma xam moom ni muy dunde ak li muy def pour yóbbu réew mi incompréhension boobu am mu wóor ma ni que am naa ci rôle bu ma ci war a joué loolu laa jéem a joué. mais mairie bu Dakar mu ne challenge la woon natt nga doole ji xam ne euh, mën naa am toll woon ni nga xam ne moom nga yaakaaroon. mais dafa mel ni da ngaa amaat benn challenge ndax ja jàmmaarloo koo xam ne moo gën a populaire politiquement jamono ji si réew mi. Mm-hmm. joxaat na benn envergure Mame Mbaye Niang jamono ji si biir euh, Benno Bokk Yaakaar si biir APR. est-ce que bu nekkul woon tamit yooyu euh, nattaat sa euh, tolluwaay si wàllum politique nekkul woon si objectif bu procès bi. non non non mënut a nekk objectif bu procès bi bu fekkoon ni que moom laa ko njëkk a defal. parce que ba may yóbbu yoon journaliste bi utuma ci envergure. boobu seetal sama der moo ma taxoon a jóg ak wax ni que kii lim bind du dëgg parce que nee naa la li gën a metti ci wax ji mooy ñañuy wax ni que dañ maa mën a jàpp ñooñu ci cest ci tubaab un ministre mënta nekk ci champ d'action wu IGF loolu ku def droit administratif da nga koy xam journaliste bi gëstu day xam ni que bu ñu la indilee rapport rapport IGF wala rapport kii ni la tour ministre mi ngi ci jàppal ni ko du dëgg parce que rapport yooyu turu ministre mënu cee nekk firnde bi rapport cour des comptes bii génn da ngaa gis ñu bind ci turu ministre. parce que yoon teg na ñi nga xam ni ñooy gere loolu ministre bu ñëwee bu xëyee war a def dara day ñëw daan ni ah man de président nee na euh, promotion touristique. war nañ ko accélérer ci côté France parce que nombre de touristes yi ñu am ndigal lolu ngay jot ci président bo ñëwé da ngay woté réunion de coordination directeur promotion touristique ci ministère bi tok directeur agence bi tok DAGE bi tok ñoñu lañ jox xaalisu lijeenti lolu nga ni leen ndigal li moy nañ accélérer France donc liñ doon def li ñu doon def États-Unis ak li ñu doon def Italie wàññi leen ko léegi nañ jël xaalis bi yëpp ñu investir ko France ndigal li loolu ñoom ñoo koy def nañ koy defee seen responsabilité la léegi ca nañ koy defee man boo ma ci bëggee sikk mooy tooñ nga ma. monsieur euh, ci procès bi lay ñëw parce que. léegi xel mënta nangu nag. yow nga bëgg a jiite réew mi te xamoo ni ko yëf yi noonu lay doxe te du bii yoon rek lañ ko def. d'accord. du le rek la ñooñu ni que xamuñu nan lay doxe élection locale yi ngay wax ñaata liste lañ fa rejeté parce que ñàkk a xam la ñi non non dama lay wax hmm. ñom dem nañ ba dañ leen disqualifié parce que nous defari liste yi sax jëluñu jotu ko donc xamuñu nan la di dal na leen ci locale yi dal législative yi la dal hmm. ci erreur humaine ay juum fii nii mais juum ci nombre bi ngay investir loolu ñàkk xam la. mais yéen juum ci fa ngay no non xaar dama lay expliquer. Hmm? nee naa la am na erreur yoo xam ne si humain facteur humain la mooy kii bind. ni muy tegalee yi mën na juum tegale góor ak jigéen donte nombre bi sax loolu la mais na ko tegalee moo baaxul mais juum ci nombre bi mais kooku ñàkk xam la donc ñoom bari na ci lu ñuy wax xam nga ku mel ni Ousmane Sonko mii ngay wax. moom ci liñ ko xamee bi ko ñi ñi njëkk a seetlu waxam assemblée nationale di wax rek xam nga buñ demee ba nit mën a taxaw ni député du fay impo te yow ngay député di yor bulletin de salaire doon liggéey impôt nga mën a taxaw ni député du fay impo nit ñi mën ko gëm ñu taxaw wax oui ah quatre-vingt-quatorze milliards nit ñi mën ko gëm ay yoo xam ni képp ku jàng xam droit mu tax man problème yooyu laay am ba ci avocat yi wax cest à yàq nañ yàq nañ yàq nañ yàq yàq nañ yàq nañ lu bari ci réew parce que ñi xam sax ñemeetuñu wax te dañuy xam ne que li ñuy wax du dëgg mais ñu nekk ca mais am avocat yi passé ni avocat mi def ni conférence de presse hmm. mais wax amul bopp amul genn yow kay avocat yow droit moy si yow waxuñu la pour nga reporter waxuñu la pour nga wala bu militant nga militant mais si mom bu un ni que ñom yalla may bañ transformer avocat ak médecin ay militant wax c'est contraire à à le truc mais que loolu yanul juge yi kërëb def ma bëgg ma bëgg après yow boo demaatee nga dugg toog

29 milliards ci pour tool projet gi. mu ko japon kay fi mu nekk war ko jàpp mu leer nañu sen bopp. waaw fi mu ni kay mais dede defal ndànk baabu. non parce que procès une décision non non xaaral defal mais décision bi ci Ousmane Sonko la jëm. wa mais dede dede dede oui Il y' a une décision de justice. oui qui dit ni que il est établi ni que Ousmane Sonko fenn ku ko wax mom djumo waxoo loo xamul tribunal moo bind kayit. d'accord léegi. ni que moom dafa waxoon ni que yor na rapport bi ba ci veyu procès bi le 16 mu def taal ay caméra am Sénégalais yëpp di ko déglu mu ni leen bu subaa dinaa leen wan ni que lii ay waxi caaxaan la ñëw leen ñu dem tribunal maa ngi kayit yëpp. ñi may layal pare nañ ñu dem déposé wu ko fa tegu ko fa génne wu ko joxu la ko d'accord léegi bu ñu demee romb loolu ba egg ba tribunal daan ko ñu ñëw fii nii nga naan ma dama bëgg mu leer loolu mooy da ngay fekki gaaw société civile yi nga xam ne li ñuy wax xamuñu ci dara wala farandoo la non de li ma bëgg mooy Sénégal yi xam nga vingt neuf milliards yooyu wala trente six milliards comme ñi ko ñeneen di waxee mhm. Sénégal yëpp ñoo ko moom mhm. da ci am wàll ma am ci wàll keneen ak keneen am ci wàll mhm. procès bi biru Prodac la mais li ñu gis ci. projet bi du mbiru Prodac. waaw ok ok déedéet projet bi. mbiru rapport bu jàpp. ma Mbaye Niang ci luubalu vingt neuf milliards. ok moo tax ma ne est-ce que tey. Eh. pour sénégalais yëpp xam li xew ci Prodac lan la. waaw mais man dégg nga xam ne yaa nekkoon tey. man man déedéet man dégg coordonnateur bi nga leeral. objectif yi. man nekkuma woon coordonnateur bi baaba fan fan la yegg tey ji waaw déedéet. yaa ngi juum. am wa sànq ba léegi maa ngi wax. <laughs> ne naa la man nekkuma woon coordonnateur. waaw d'accord d'accord léegi projet bi bu ngeen bëggee xam. nan lay doxee. mais demal nga invité. voilà ban télé moo fi mas a dem ci domaine agricole yi. kii sànq mi ngi nii def reportage. ñun dem nañ fa ñun dem nañ fa ITV dem na fa. waa déedéet xaaral rek sànq teg nañ documentaire. Mhm. boo xam ni Kër Momar Sarr la. Mhm. foofu noonu am na domaine agricole boo xam ne six milliards cinq la moom nee na gis na ko. dem na fa waa donc ku bëgg xam nan lay doxee kay. demal nga woo coordonnateur projet bi wala nga jël sa télé dem def fa reportage. mais il yow a un wax exactement product la mo ci mais man néna la portage objectif lan la. objectif bi ñu xam tay la tollu tay objectif oui parce que nous, devons ñoo japp ne. ba ci gis nga non non non. oui bu wax c'est que man ko vraiment amna parce que mom aussi bokk na ci ñi nga xam ne Je waru leen a ban a baal ministre xam lu ministre mën xam ministre ba mu mom ci bopam waron na meuna wax ni ke li ñuy wax ni meunta nek bu fekke ni ke nit ku dëggu la parce que xam na ni meunta nek mom kenn duko wax Ila Touba lan mo fa am kenn duko wax talibé lan mo fa am parce que coordination la doon def Ageroute mo doon mettre en œuvre bu toogee fi nan weyi ay kërëm kërëm moy wax yi wax yu ko neex rek lay bëgg wax nee la buñ démé bañu xam dundu dund ñemeetuñu wax li dëgg moy ek problème amna man mënuma comprendre avocat bu naan rapport mënuma comprendre énarque bu naan rapport mënuma comprendre société civile bu naan ay waa rapport ci loo xam ni administrativement mënul nekk mais mag moo xam ne yow xam nga ni lii ngay wax du dëgg mënta ne nga dëgër ca toog di wax mooy kooku mooy dëgg taxatu laa jóg da ngaa far ku far nag man damay jàpp ni que da ngaa far Amna na baaw fi nga bëgg a waxee ala kulli al lañ doon xaar si euh, product bi yëpp amuñu résultat buñ doon xaar mu gën a yaatoo parce que ni mu ko waxee man dem naa fi nga xam ne moo di Kër Momar Sarr cinq cinq mille hectares yi nga xam ne moom lañ fa aménagé pour def ko mais ñu ngi ko doon xaaraat Kër Sambakan ñu ngi ko doon xaaraat Itatu ñu ngi ko doon xaaraat fi nga xam ne man CFA en fait dafa nekkoon loo xam ne ñu ngi ko doon xaar ci gox yu bëri mu am résultat boo xam ne day taxoon ay ndaw yu bëri gis seen bopp si wàllum xëy waaye tax Sénégal mën a dundal boppam parce que dama lay dog tuuti parce que peut-être boo suivroon vous voyez que le product qui a fait passation, le pape Malik, le ministre de la Jeunesse, il a fait passation. Il a 29 milliards et 6 milliards. Il a fait qu'on lui 3 milliards. Il a un taux d'exécution de 98%. Je a fait parce que le directeur du product. Donc, le Momar Sar parrain, mhm. c'est ce que je veux dire. CFA parrain, le Sambakan euh, peut-être mon egg 88 Ce li ñu prévoir oon Itato moom lañ xaaj ñaar indi partie bi mu Itato partie bi Moi, li donc nous bëgg soit suivre mais nous xam dafa bëgg

domaine agricole yi. parce que melu ni bi Kër Masar Kër Masar mel quand même. non bu CFA bi moo développer a sax. Hmm. parce que bu CFA bi serre yi pare surface aménagée. donc soutenir euh, jeunes entrepreneurs yi à travers des des des financements pour ñu occuper superficie yi moo mais structure bi leen di jàngal mi ngi fa. équipement yi mi ngi fa mais liñ fa doon def sénégalais yëpp a ko doon gis yow mi dem kër ma kër Samba Kane yow xam nga ni que. foofu c'est sous exploité capacité yi mu am yëpp ak ñi fa mën a liggéey lépp mais ña dëkk ca gox ba wàll yuñ si fa ca loolu moo nekkoon bëppët bi projet bi projet bu baax la projet bu baax projet bi projet bu mën a indi ay résultats la lu am feneen li muy wax dafa am solo mais politique bu ko waroon accompagner moo amul ndaw ñi demuñu si seen projet yi parce que dafa waroon am accompagnement man ma yaakaar dañoo am njumte bi ñuy jël projet bi di ko dugal ministère de la jeunesse parce que projet bi normalement ministère de l' agriculture la woon dugg donte ay ndaw ñoo fay dem di xëy mais tool yi fi nekk yëpp ay ndaw ñoo fay xëy. loolu mën naa nekk li nga wax parce que techniquement en euh, bi def ko seen yëf yi bopp. dafa waroon ne parce que yi nga xam ne moom la euh, yeneen programme yi nga xam ne moom la ministère de l' agriculture doxal yëpp yu mel nii donc objectif bi lii la. Euh, tey man dem naa si benn ferme boo xamante ne bii 4 milliards lañ ko boobu am na mille ne 1300 hectares mais. ferme bobu tay limi muy jaay bitim réew moo ëpp jaay si réew en fait donc imaginer 4 milliards nga diviser ko par 9 euh, milliards 29 euh, milliards boko diviser par 4 ñaat domaine yu mel non nga ci mëna am. ça veut dire que deug la amna yu sampu. mais mënoon ñu am lu gën la am. da nga envoyer huissier kër Ousmane Sonko pour euh, dommage intérêt nga xamné tol na ci 200 millions pour ñu jox lako parce que gis nañu sunu naataango yu suur saa bind ko est-ce que mënu ñu indi leeral exactement ci lolu lan mo ci amé deug deug ah li ci am kay mooy man wàllu woowu du ko lijjanti xam nga man ut damaa uteeg moom man samay avocat bu ñu ma waxee nii la ñuy doxee man noonu laay doxe signifié nañ ko jugement bi. monsieur dem euh, ah, mais en tout cas signifié nañ ko. oui signifié signifié. mais monsieur le ministre. waaw sama diggante man ak yow. rek ñooy wax. waaw baaba amul kii amul. waaw téléspectateur amul kenn amul. kon damay fay caméra yi. fay nañ caméra yi. yëpp euh, Mass fayal caméra yi dama lay laaj rek. Uh-huh. yaakaaroon ni 200 millions yi dafa bari. dafa tuuti. non yaakaaroon ni 200 millions yi. dafa bari déedéet. non su fekkee ni jour journaux yi. Mm-hmm. Euh, ñi nga amaloon problème ñi 6 mois sursis ak tuuti amende ñii tuuti amande mais bi xam nga 200 millions yi dafa bari. xam nga yàq-yàq bi muy def la ñuy buñ xool li nit ki mën. lol motax ñuy ci bind ci jugement bi exécution provisoire contrainte par corps au maximum waaye ko xamné mom bamuy wax ni ko yor na rapport xamné ni ko yoru rapport mu wote ndawu Sénégal yépp li am sank nga wax ko ñu tëj boutique yi tëj kër yi tëj lépp ñaari bakkan roti ci mom lo xamné xam ni na ni ko yoru ko ba tay ji ni ñuy wax nanguwul wax ni ko yorul rapport waxul dëgg nanguwu ko. waaw mais ñëg day am. mais mais mais monsieur le ministre 200 millions nag bari na de. waaw mais ku am ku ku ñëg nag ba lor réew mi dafa am lu yoon wax ni dañ la ko war a teg ca warul am yërmande xam nga lu tax warul am yërmande suba keneen mën na fee xëy woote. gannaaw suba keneen mën na fee def lu mel noonu walla lu raw loolu woote li tax yoon war a tegu ci kawam. ba ku ko dégg rëccu ko ku ko gis du ko ñemee def loolu la bu Boubacar accident bu metti dafa am fan yële ñu ni juróom benn fukki nit gaañu ne xaw ma Kaffrine xam nga chauffeur bi dañ ko jàpp tëji ko kooku nga def ni moo tey def accident bi dafa juum de ba ay bakkan loru ci mais yoon daf ni dañ koy tëj te ñun ñëpp xam nañ ni dafa juum defu ko ci tayeefam parce que yoon mooy doxee noonu loolu mooy maintenir équilibre bi keneen ku ci gis leneen yaa ci bëgg a gis leneen mais nag réew mi war na romb ci man li ma ci metti mooy ay junni nit dañ lay woo waaw baal ko rek xam nga jàmm gën mais jàmm gën ñu ñëpp nangu nañ ñi ci jàmm gën mais bàyyi lii mu continuer moo gën a doon musiba ci réew mi parce que nit ak ñi nii koo xam ni wax na lu dul dëgg ñu firndeel ni ko wax na lu dul dëgg ca mu waxoon ci ginnaaw ay wax yoo xam ni yàq na deru ñu bari xel war a mën a nangu ni ko loolu mu doon wax du dëgg nga ni ko fa ñukk bàyyi ko fa parce que da nga ni candidat la am na parti am na fukki xale yi ak juróom yu ko fi topp yoo xam ne mën nañ taal dëkk bi ah, fukki xale ak juróom de déet dafal ah, fukki xale ak juróom ñaata nit xale yi ko topp bari nañ de waaw déedéet ah, du fukki xale ak juróom nag le vingt-neuf wootewul woon non loolu loolu waaye la. moom nañu mais nag mais nag Mambay. yi loo loo Mambay. Mambay am na nit nag. waaw waaw non non bu amul ñoom bu ñu amul woon ay nit kay duñu am nombre de députés yi. mais mais mais dégg du question meeting. nit ñi tant yaa ngi leen di woo ci lu leen di convaincre dañuy ñëw nee naa la dañuy fàttali seexu Chérifou. Cheikhou Chérif. <laughs> Sénégal la mel noonu. nit ki Cheikhou Chérifou dañu waxoon ni leera wàcc ci moom nit ñi dem fan ngir ngëm li lay yóbbu dëgg la mais boo demee ba xam ni du dëgg mais nan la xel mën a nangu c'est que tamit réew mi tamit i faut ngeen xool buubs hmm. munoo di wax loo xam ni amul nit ñi ñi dañ lay topp loo xam ne ci sa coobare bakkan du benn du ñaar buubs nit xool ñu ñun sénégalais yi ba ñu sàpparli ñu xool ñu ba mu neex la ñu tegal la photo suite boo te nga ni dama demoon fii faju fi xool Sénégalais yëpp ba mu neex la nga ni non am naa rapport ñu dem indi woo rapport mais tamit bu leen nangu ñu yóbbu réew mi foo xam ni eggu fa leen nangu ñu yóbbu réew mi fenn foo xam ne parce que am nga juróomi nit yu lay saagaal fee am nga jub mais loolu dootul amati ci réew mi. mais incha allahu rabbi bu fekkee ni que am na lu luñ ci tiit ah man de ki may waxal ak ñi ñu nekkal te yàlla teg réew mi ci ay loxoom. am naa yaakaar bu baax ni que lépp lu ci war nañ ko def lu mel noonu nit bu ko fi xalaatati. ah mais en fait dañoo amoon discours bu mel noonu ci événement yu njëkk yi. waaw du fa amati. fi. rek si ne du fa amaat. gis nañu ay nit yoo xam ne yàq nañ seen commerce. dañ ne woon doon fi gis nañu ay station Total yoo xam ne taal nañ ko. ña ko fa sama ay xarit ñoo ko moom. waaw mais ña fa def ña fa def ñëpp yoon teg na leen loxo. non ñëpp jàpp ñu leen. déedéet ñi ngi jàpp ñaata nit lañ. non mais am na gis nga. xam nga xam nga xam nga. Kabirex bii ñu sponsorisé. place am bi nekk Cambérène. nit yi dañoo ñëw toj ko. jël télé yi dugg yëgal ko ci ay saret ak ay frigidaire yëgal ko ci ay saret di daw ak moom. moom ci boppam moo la wax ni que après police mi ngi jàpp ñi ngi jàpp ñi ngi jàpp. mais jàpp ñu ñëpp. waaw mais dinañ jàpp. mais li am am na mais dommage yi moom kenn du ko fay. frigidaire am yi dem ak yooyam dem kenn du ko fay. xam nga police ak gendarmerie ak yoon dañ ko fee teg pour que yenn yi du bañ a am. et pourtant chaque jour ñi ngi agressé. dëggit am de dëggit noonu la yëfi tëdd mais fa mu eggoon ku xalaat ni que dina fa egg dootu fa egg mënatu fa egg. léegi ku ku koy xalaat sam xel ngay fowe mais fi ko teg mooy est responsabilité bi ci war lépp dinañ ko jël jumtukaay bi ci war lépp dinañ ko jël fi yoon teg lépp dinañ ko jël mais léegi nag yéen tamit en tant que relais ak ñuy informer da ngeen di jël seeni responsabilité ñuy wax nit ñi dëgg parce que ku ñëw toog fii nii naan waaw dañu jàpp ay détenu politique détenu politique mooy ki dem toj magasin wu jàmbur détenu politique mooy ki dem taxaw di saaga kër jàmbur détenu politique mooy ki taxaw wan kanamam ni man dinaa def lii dinaa taal kii dinaa kii kooku mooy détenu politique ay non amatuñ liberté ah de suñu démocratie démocratie mooy nga taxaw di saaga ku la neex démocratie mooy nga xëy taal fu la neex keneen du circuler démocra démocratie démocratie dangai nga dangai décider ni que da ngay da ngay da ngay da ngay créer da ngay perturber ordre public ba keneen ñi duñ mën a def loolu mooy démocratie ay proche nguur gi lañ wala ay proche wu Benno Bokk Yaakaar lañ wax lu ne mel wala def loolu tekk tekk dara fekk leen ci monsieur le ministre Sénégal nga dëkk fi nga yow tamit barki démb lañu gis waa jooju rapport rapport bi dëkk Grand Yoff yor jaasi nekk si mbedd mi sa kenn kenn jëliw kenn monsieur le ministre mën nga ma may mën nga ma may ma préciser benn affaire danaan la diw moo ma saaga wan la firnde ni diw moo ma saaga ma saaga ko mais loolu lépp day arrêté mais yow ngay jot bokal mu wóor la ni diw moo ko def mu ni noonu nañ dem taali kër Mame Mbaye nañ dem taali kër kii ci vocal am sax ñu naan euh, sa rapprochement ak waa Pastef ci vocal ba en fait maa ngi jot sax. même même message benn bu wax wax wax yooyu boo ci nekkee. di toll mu ngi ne yow da nga da nga wax ci conférence de presse bi ne. nga émissaire waa euh, Sonko. mu wax ne nga retiré nga ne day waxtaan si suuf di di tàggat ci kaw. déedéet journaliste moo ni ma. Hmm. waa mais yéen tamit ñi ngi seeti diw ñi ngi seeti diw sa papa seeti nañ kii est-ce que doo ko baal ma ni leen man munoo may. saaga ci kaw di yónni say nit ñu may saaga ba pare ay nit ñëw ci suuf wala ngay yónni ay nit ñu may wax loolu xel nangu ko yow koy wax nga assumel rek c'est que wàllu gor gor c'est-à-dire sànq oustaz bu fi nekkoon xëy na waxtaan bi dina gën a neex mais yow suñu mbokku taalibe nga gis nga réew mi avant diine di fi dugg ak muy am ay loi ay république ci ngor lañ daan àtteewoo ngor jom ak fulla ak taxawaay ak liggéey mm-hmm. jàmbaar ñu ngi ko doon natt ci ngoram mm-hmm. mooy mu am kàddu gor ñu ngi ko doon natt ci taxawaayam dëggu ñu ngi ko doon nattu ci paspas pas mm-hmm. mais yow munoo taxaw se junniy moroom ñoo xam ni mat nañ la pàpp mat nañ la yaay mat nañ la rakk am njaboot

bu am ci sérénité nañu renvoyer procès bi un mois man waxuma te pourtant un mois yooyu arrangé wu ma woon waxuma parce que samay avocat dañ ni ma non l'ordre s'est prononcé noppil man leen li ngeen wax la ñuy def neexuma ok moom mhm. ordre des avocats sanctionnés mu toog ay avocat am toog mu saaga ordre bi juge bi ñuy wax mu récuser ko nit ñi naan ay noo mbaak mbokk mbay la ca aadama ak awa xamante wuñu moom kenn xamul dara juge xamul dara mooy fàttali téléspectateur yi ne Ousmane Sonko. Mhm. saa yu bëggee tontu. na dugg non mën na dugg. waaw amul te mën naa ñëw tamit. bu ñëwee toog fii ñu yokk émission bu ñëwee toog ñaar ngeen wax. ñu yokk émission bi. te tamit saa yu bëggee def émission ñëw toog fii nga toog pare nañu. moom dalal ko mu ñëw toog fii nga toog. <laughs> comme kër góor gi la dëkk sorewul tamit bu ko neexee mu sol dàllaam léegi ñëw toog ngeen waxtaan ma ni waaw bu ñëwee daal mu toog fii bu waxee ma tontu ko waaw mu toog ngeen waxtaan en gentleman ah, non man aw ma problème parce que nga animosité moom moo ko fi indi hmm. animosité hmm. ay discours et wax lu dul dëgg yóbbu wax ji ba ñun fii ñu ñëpp dañ daan opposé wu man man ak jatara dóorante nañ muy wax fii may wax fële bu ngoonee dañuy toog naan suñu ataay parce que bi may tudd sama doom dafa ñëw toog bate la Barthélemy ñëw na tribunal di ko soutenir si pour wàllam ñëw ñu nuyoo jàmm sante grand xalifa génn ñu nuyoo jàmm lañ xam jàmm lañ seq donte xalaat yi wuute na moom moo fi indi fu indien yi nii. <laughs> lan mooy yëfu indien yi. waaw waaye ñëw fii saaga fii armée ay saagakat saaga kilifa diine yi fii jéem toroxal ay nit fii jéem a wane ni ca yow li ngay def lépp heure boo ko defee day wane ni que xamoo munoo te ñi mu koy def ñoo ko ëpp jaar-jaar xam nga loolu mooy incohérence bi ci am après damaa bëgg boo paree ci loolu nga ñu ñëw ci troisième mandat bi acca bisimila baab oh, euh, Mame Mbaye euh, ministre nga euh, yor ay ndombal tànk ci bopp réew Sénégal tey

denc na ko ci pochetam xam na ko ni que président am na droit nekkaat candidat am deuxième quinquennat suñu biir parti bokk naa ci ñuy animé ni que situation bi ñun Macky mooy suñu candidat ndax dina ko nangu wala du ko nangu eggaguñ ci loolu loolu la pour accompagner ko déggoo li ma la wax man maa ni la man maa njëkk a wax ni que bu fekkee ci wàllu yoon lañ ko teg hmm. am na ci droit ma joxe firnde bi bi hmm. suñu biir parti rek suñu biir parti bokk naa ci ñiy wax ni que ak gis-gis bi ñu am ci réew mi ak li ñu sumb ci réew mi ak fi réew mi toll nañ jël Macky Sall mu nekk suñu candidat loolu kay man maa ko. Eh, eh, donte am na borom xam-xam yu yëngu si ñoom ñu gisee neneen ñun dañuy ñëw feneen ndax da wax léegi kàddu yu am solo ne Sénégal laataa ñuy dugg ci leneen dañoo nekkoon ñoo xam ne mm-hmm. ngor fit euh, jom ak fayda la ñu amoon mais ak kàddu. parce mm-hmm. euh, que doon wax ne euh, gor. na nga gor ca wax ja gor ca wax ja maanaam mm-hmm. ay waxi démbam bu méngoog jëfi tayam. waaw jàpp leen gor a ngi noonu. waaye njiitu réew mi ay kàddoom moom tamit ak mbindam. dafa waxoon ne du ma dagaat dagaanaat baatu askan mi ñetteel bi yoon te def na ñaar ba non bu fekkee ci diine nga koy attewoo un reniement n'existe pas yéene la bu suba man daal lii laa bëgg a def nga dogu ci ci jamono ja firnde ak lay ya ngay indi dafa war a méngoog li am ndax ñun firnde yi ñuy indi ak lay yi ñuy indi dina méngoo ak li am boobaa sénégalais yi ñooy àtte et sénégalais yi ni ñuy àttee mooy jël seen carte dem voté ji maanaam man jàpp naa ni am na fu ñu jël réew mi fu ñu laay wax du ma wax fu Macky sàll jël réew mi parce que dama cee bokk bañ koy door ba ñu ko yàlla joxe ba tey jii nii maa ngi ci donc lépp lu ci am am naa ci responsabilité léegi nag yéene lañ amoon ci réew mi am na fu ñu fekkoon réew mi am na fu ñu ko bëgg a yóbbu ku wax rek ca yàlla tax xam ni am na fu ñu ko jële am na fu ñu ko indi donte suñu yéene eggaguñ fa ci suñu biir gisuñu ci man boog gisuma ci keneen ku tax ku mën a tax ma topp sa ginnaaw ñu eggale liggéey bi keneen noonu keneen noonu keneen noonu ñu ni kon na continuer yéene biñ am ci réew mi. budul Macky Sall yéen bi ngeen am ci réew mi mënul mot mënul mot xam nga man awma droit dem à l'aventure man duma Ousmane Sonko nga xam ne damay xëy rek di wax donte ci ginnaaw amoon naa doxalin boobu daan naa critiquer mais yàlla teral na ma sax laay wax ci boole ma ci ni ñuy doxaleem réew man def naa juróom-ñaari at ci gouvernement def ñenti at ci cabinet président de la république gouvernement moy exécuter programme cabinet président de la république ñoy préparer dossier donc yalla teral na ma ba def na fukki at ci ñi réew ma téye ministère xol gouvernement na lay doxé dem ci cabinet président xol na ñi préparer li ñuy yobbu ci gouvernement bi donc man xamna xamuma lépp nak ba légui ma ngi jang xam naa am réew à nan lay doxee xam naa ku am yéene ci réew ak ku am mbébét ci réew nan lay doxee loolu moo taxoon mu bëgg a tester ma bëgg a tester pour jël échelle bu gën a ndaw xool ndax man mën naa jëlee ndakaaru fii yóbbu ko fële candidat yëpp man rek maa ci amoon programme amul keneen ku ci amoon programme Sénégal 2035 programme bu ñu eggee at li ñu fekk ñu def lii bu ñu eggee ñaari at ñu fekk ñu def lii yàlla dogal

wala yàlla di ñu nattu réew mi di egg ci loxo keneen koo xam ne day tàmbaliwaat li xale yi di wax ñun cent cinquante kilomètres heure mooy suñu objectif oto bi mi ngi daw egg nañ cent vingt kilomètres heure booy changer chauffeur bi rek mooy que da ngay ne hmm. eggaat zéro kooku démarré waat pour egg cent cinquante kilomètres heure xel war naa mën a nangu ni

bu ñu yàlla dénkee sénégalais yi wóoluñ mais ak moom la ñuy continuer bu ñu gisoon keneen kay man mi bu ma mat bu ma yaakaar bu ma jàppoon ne que mën naa ko téye man rek mais kon nga def ni dinaa dem mais parce que dañu xam ni que lii moo gën ci réew mi. mais Idrissa Seck mu nekk candidat Bokk Yaakaar en 2024 ngeen bàyyi cool ñettul ko mënoon a nekk kon moom la ñuy wax mais nee naa la mais fi Baba waxee de Baba baax li mu wax ngeen xam nga xam nga coowal ñetteeli mandat bi

parce que ces gens-là disent que sommes. non Nous, fi Amé. Bouba, c'est que ci télé la ñuy waxee ay ndaw dañuy Nous ay mag dañuy mhm. ñun li ñu affrontement Nous na am urne ya muy lolu mo gën ci ah, xam nga am am février. am ñaari ma ah, mars am mais fi ci kàttanu yàlla. waaw mais da ngeen da ngeen ni waxone beulé passé na dootul amaat. bi paase amaat na amaat na kay. waaw lan moo amaat. amaat na kay déedéet ay ay ay ay commando yu jóg tëgg. ah waaw waaw ñoom ñëpp ñu ci biir. mais ça ça fait de telle sorte que suñu dom jangi wuñu suñu nit jàngiwuñu. mais say ñi liggéeyiwuñu. wuñu doom top parce que yeen da ngeen waroon dem tribunal. et ça c'est pas normal. say suñu gis nga say doom jàngiwuñu samay doom jàngiwuñu. waaw bu say doom. jàng mais loolu mo normalu. non non li tax li tax mu am da ngay xool lan moo ko indi li ko indi mooy benn nit bu tooñ bu sosal moroomu nitam mu ni ko kaa ñu dem ci yoon kook nit kooku ubale mbedd mi ni dañ koo bëgg a. loolu moo warul am benn nit. boobu mais réew mi loolu moo warul am benn nit boobu. benn moo warul am waaw mais déedéet déedéet nit boobu. comme ko waru koo def mais ma wax la benn nit boobu comme ko waru koo def mais yoon. moo fi ne def na ko. jéngu na ko. Eh, eh, eh. na ko defaat suba. non ba <laughs> ban faiblesse. par rapport ak loolu. wootewul le 30 ba muy njëkk a ñëw la 16 wootewul naan fii laay jaar fee laay jaar est-ce que jaar na foofu mais yëf yi crescendo la ko defaatee xam nee naa la am na wax waxi maa tey ak waxi lu ma neex def ay non du démocratie eggatuñ foofu. démocratie moo am ci réew mi démocratie moo tax mu mën a dem tribunal demander renvoi renvoi am démocratie moo ko may ay avocat di génn di wax démocratie moo ko may ay avocat di def ay renvoi démocratie moo ko may procès am muy jéem a perturber kii bi mais démocratie boobu nag la ñuy suuxat parce que moom cundum ak bakkanam ak coobare bakkanam jóg génn wax lu la neex après dem wéeru ci bu ñu waxee nga ni ndaw Sénégal kaay leen bu woowee ndawu Sénégal ñu woo ndawu Sénégal bu wàccee yoon yoon rëq ndiggam comme ni man bu ma wàccee yoon ni yoon waree rëq sama ndigg bu ma sàccoon xaalis produit bi yoon dafa war a rëq sama ndigg ñi ciy wax naan noo daf ko war a leeral téewu ma ko ba di ko leeral dañoo bëgg a yàq xelu askan bi ñi ciy wax rapport am na amul ñi ciy wax ay recel de document amul loolu lépp amul donc mënuñu gis ñu ñëpp ay nit tegale ay fenam ba taxaw ci kaw après ñu bëgg ko teg ci jàmm yi mais kooku kay kooku moo yàq réew mi kooku yoon moo ko war a Ousmane Sonko maa ngi wax ne saa yu bëggee tontu mu tontu saa yu bëggee ñëw fii mu ñëw fii ubbil naa buntu yi. saa yu bëggee ñëw mu ñëw toog te monsieur le ministre bu Ousmane Sonko ñëwee itam bu ma la woowee yéen ñaar ngeen toog yaa ma wax ni pare nga pour ngeen toog yaa ma ko wax de. <laughs> yéen ñaar ngeen toog ngeen waxtaan waaw. waaw. Ousmane Sonko bu amoon firnde ci lii wax. Non, mais, ouais, mais, mais, échanger, quoi. mais non, mais, mais, mais, man, man, nena, moi, j'accepte la contradiction. OK. le, le 2 de football, le 16 de water. 7h30, 7h30, 7 h au tribunal. Life remital. Tech life. Oui, oui, oui, le juge, mon rapport, il a déposé à un coup de tour. couture dama yàkkamti na Mohamed Diop ñëw damay déposer rapport bi aw ma jot fenkat Il ngi nii bu rapport loolu lay def ku a ni muy doxalee. mais xam nga xam nga yi passé mais xam nga comme yëf yi passé Il jàll na. war ngeen a mën entre deux sénégalais. des hommes politiques non attends, moi je man que je wax. dire. des hommes politiques. des hommes d'envergure politique. qui s'asseyent et qui discutent et qui échangent.

ça c'était un débat politique ça c'était un débat judiciaire Je wax li tax man ma Je la ko mais parce que waxul deug xam nga nax nit ñi avocat am ay avocat am defe conseil bi avocat Ousmane avocat parce que ñii moom transformé na leen ay militants parce que li ñuy wax ñaara mën a nekk jànguñu droit ca mënuñu ko wax parce que ay avocat lañ def nañ concours barreau exercer, mu ci mu am ci ay nit yu respectable yoo xam quand même dans le passé ils ont défendu de gros dossiers mais bu ma leen déggee ñuy waxee nii mais c'est comme si jànguñu parce que boo ñëwee taxaw naan noo indi naa certificat yow waro wax tant que sa client taxawul juge bi nangul la waro waroo wax c'est-à-dire moom tant que ñewul taxaw ay avocat waru ñoo wax Sénégal yeen ñep seede ngeen ci ni que première fois bi ñewul ma doon football pourtant juge bi may na leen ci walu bëgg jamm bëgg yëf dal ay avocat wax ba demander renvoi ca yoon dafa wax ni que ba ay avocat buñ taxawul mom Ousmane Sonko bu taxawul ay avocat waru ñoo wax bay sax demander renvoi juge bi may len lolu ngir bëgg sérénité ci décision de justice bi ma nangu ko wax def li ma sama avocat wax génn dem sama yoon ñu ñu ñëwaat ba mu ñëwee mu ni noo yeneen avocat 31 avocat Boubacar kuy wax dëgg soxla woo 31 avocat nañ waxante dëgg rek man tey jii nii bu ma la ni woon sa mbubb mi dafa bëla wala Boubacar am nga mbubb bu bëla denc naa ko buñ demee tribunal lu may dee avocat dem naan Boubacar yow tamit bu ma sonal yow nga ne amoo mbubu bële mbubu bi kay ci ci ci ci armoire maam jaara moo jox mbubu baa ngi nii ndax yaa ko moom wala am det, mais ubale réew mi woote mbaboor no kaay leen ñu dañ ma bëgg faag mais ya fagagal sa bopp kenn faagaagalu la yow yaa faagaagal sa bopp yow yaa wax lu dul dëgg te ñi koy topp loolu laa bëggoon oustaz bi fekke ko egg na fenn ni xel parce que nag kuy taxaw ci mimbaru yonent bi ay imaam ak di wax ca yàlla tax sallallahu alayhi wa sallam diine jooju ñuy atte woo nee na nit jullit bu waxee wax ja dañ ba mu am màndarga mooy li ko dal nii mooy wax na ni ko am na lii ñu dem tribunal ñu ni ko du dëgg mooy fen na ku fen matatoo seede ci diine ji ku matul seede mënatoo jiite waay waay waay waay waay bàyyi leen njubadi gi yi ñuy jiñ nii te yor koo xam ni wax na lu dul dëgg du benn du ñaar en tout cas bii yoon moom tribunal wax na ni que du wax waxkatu dëgg nga bëgg faa sukkandiku di yàq deru ñeneen ñi naan noo ñi ay sàcc lañ ci ka ngay wax sàcc la nit ki pour nga mën a sàcc da da ngay nekk fa sàcce wala la ñu sàcc bokk ci yow wala ñu dénk la ko mais bokkee woo fa laalee woo fa d'accord d'accord nañu ak yow donc mënatuñu ànd d'accord di cautionner loo wax wa nit ku dul wax dëgg dañuy nangu ni ko kii waxul dëgg. monsieur le ministre damay ñëw si beneen chapitre donc jéem a layal damay chapitre. xam nga yow da nga bokk ci gouvernement au Sénégal. absolument nga le président Macky Sall. absolument da nga nekkoon ci biir cabinet président Macky Sall. absolument ci biir cabinet président Macky Sall ci biir gouvernement au Sénégal dafa am ay fautes de gestion sur Covid bi. Mhm. dans la Covid il y a eu des fautes de gestion. absolument et DIC mu ngi def enquête. Absolument. Il y a eu des milliards qui se sont envolés. Mhm. ci biir Covid bi. waaw mhm. lépp lu ñuy wax mhm. gouvernement au Sénégal nous wax très souvent des milliards qui se sont envolés La division des investigations criminelles des enquêtes. enquête ci Aujourd'hui, sénégalais n'a naka la ce gouvernement là qui nous a demandé de ne pas sortir de chez nous.

xam nga dañu waxoon ni que liñ njëkk waxoon mooy ni que du am du mujj fenn ministre de la justice saisir pour procureur ñu ni noo fa lay yem procureur saisir dig dig mi ngi enquête mais donc liñ ci wax mi ngi li ci yoon war a def mi ngi ciy am képp ku luubal wala nga coppati ci alalu askan bi comme ni nga ko waxee yoon dafa war a tegu sa kaw looloo tax ñuy wax boobu ba léegi yoon boobu noonu di dal ñooñu coppati moo war a dal moo war a baawaan laawaan ci yoon képp kuy sénégalais wala képp ku nekk ci réew mi loolu mooy sama sécurité loolu mooy sa sécurité loolu mooy tax réew mi ñu mën ko jox suñuy doom comme niñ ko jotee suñuy maam rapport Covid boobu ngay wax certes am na mais politiciens yi tamit yóbbu nañ ko fu mu egg Boubacar mille milliards la fonds Covid ci biir mille milliards yi ñu ni six milliards moo ci litigé woon six milliards yi ñu ni deux milliards cinq yi ci njëndum ceeb bi la woon dañu surfacturé 2,5 milliards Ce qui wax ni que dañu surfacturé 2,5 milliards arrêté au ministère du commerce 2013 la indi engagé ...un qui bi mais nan la 2021 2022 ki may dit di jël arrêté 2013 man suis naa firnde ñu ni ko jëlal donc 6 milliards et 2 milliards 5 2 milliards 5 yooyu 1,5 milliard milliards ministère de l'industrie ministère bi Moustapha Diop yoroon ñu ni 1,5 milliard yi ah, daf ko doon fayé cash cash cash xawma lan kërëb kërëb Sénégal yépp seede ci Moustapha Diop gis Moustapha Diop jël ay masque jox enseignement Sénégal yépp seede gis Moustapha Diop jël ay masque jox gendarmerie Sénégal yépp seede gis nañ Moustapha Diop jël ay masque jox police mu expliquer ni que ni ko fayé parce que euh, Euh, tailleur yi yi ko doon defar dañ ni ñoom état bi bu leen amalee di def six mois et que ñoom dañuy jënd tissu yi nañ leen fay seen xaalis donte nam leen ko fayee jàpp nañ ni ko méngoowul ak yoon mais loolu ma nga ca yoon moom indi na ay firndeem donc deux milliards cinq plus deux milliards ñaata la. quatre milliards quatre milliards six yi nga wax ñaata moo ci des. deux milliards deux milliards yeneen un milliard yi mooy ministère de la culture. daaj ba ma ñam jox xaalis yëpp ñu ngi koy signal ay këyit. mooy artistes yi ñëw fii ci yow ak ñu ngi koy signal ay kayit dina ko yóbbu dikk muy ñaata muy cinq milliards cinq cent mhm. donc six milliards yi ñuy wax quatre cent millions mille milliards mhm. nga dépensé ko mhm. ñu ni la six cent millions mooy problème bi loolu xel war na ko mën a nangu ku dépensé mille milliards mooy ñu jox la ñaar téeméer ñu ni yow ñetti dërëm noo déedéet waaw ñetti dërëm lan japp ni que da nga ko moom la doxaleen bu leerul mm. te tey ñet ci deureum yi ñinga ci loxoy yoon moy mm. kon ñooñu bëgg nañ mu yëf yi jub ñooñu bëgg nañ yëf yi mucc mais mais rapport mm. képp kum épinglé da nga wara dem saytu c'est pas la première fois rapport Cour des comptes di génn ci réew mi nee la bari na ay maire yu ñuy yobbu conseil de discipline budgétaire ñuy dem fayi essence bari na ay daaj yu dem fayi xaalis fonctionnaire koo ci gis mu dem mais xëy dafa siiwul mais lolu mi ngi am ci bir ndoxalin nak yoon buñ ko créer c'est pour nit ñi nga xamni ni dañuy jubadi mais kep ku jubadi kep ku wax lu dul dëgg képp ku doxali no wara doxé yoon dafa dal sa kaw. mais monsieur ministre la ñu ñëw ce ministère. Mhm. Euh, parce que ce procès Ousmane Sonko euh seetlukat yi ci bari dañu né mhm. verdict bi c'est un verdict d'apaisement parce que ñu bari japp nañu né élection yii nga xam ne la ñu dégmal 2024 mënuñ ko def Ousmane Sonko ci bokk. mais mooy kan ba bu fekkee ni am na lu ko ci bu fekkee ni que yoon dafa wax. ne ko mais dégg nga seetlukat yi wax. ah mais société civile ak ñenn ñi jàpp ne. mais déedéet. oui nañu nañu benn problème. bi nañu réglé benn problème. problème bi ñuy njëkk a réglé mooy man mënuma nangu nga may wax ay société civile. mënuñu la nangu nga may wax ñi ay société civile ñooñu dañoo far xaaral rek ma wax la bu fekkee ay ngay wax ak ay affaire yooyu ñooñu vraiment. démb ak moom dèjà moom tontu na si lii parce que nee na gouvernement bi dañ ñenn ñi jiiñ ne dañoo far mu ngi tontu Abdou Karim foofu na. non dem moom jiiñu ñu ko man boog jiiñu ma ni que dafa far. man dama ni dafa far. et li tax man damay confirmer ni dafa far. et li tax may wax ni que dafa far dama koy xool ci doxalinam ci procès bi ngay wax mom dem na mu ni que dossier bi dañ ko wara wote ñu waxtane ko parce que Ousmane Sonko pourquoi ñu waxtane lutax ba ko journaliste yi defé wote wul ñu waxtane ko dem na ba maa ngi ko dégg barki dem grand jury mu naan non dafa am énigme da wa jour du dimanche mu ni dafa am énigme autour des 29 milliards tôt ou tard Mame Mbaye ñaar rendra compte mais comment est-ce que je peux rendre compte sur quelque chose que j'ai pas géré mom mu ni transparence lay dox mom mu ne ci transparence lay dund xamul ni que man mënuma rendre compte ci 29 milliards parce que géré wu ma moy mi ngi wax lu ko wóoru waxi ku far lay wax kuy wax waxi ku far nak da ngay dem nga wax ak ña nga faral man dans ce cas ñi ma faral lay wax donc mom mënu len waxati ni que ay société civile la moom am lu muy défendre lo xamni man duma ko défendre bokuma ak mom ay position ci affaire yu bari bëgg na réew mi teggu ci njub bëgg na doxalinu askan bi tegu ci dëgg bëgg naa alalu réew mi tegu ci dëgg man jaral na ma ma démissionné ni boqatuma tey leen yëf yi nañ ma ñëw xool te mënoon naa wax privilège de juridiction mënoon naa wax ni que ministre la au conseil damay dama leen ni gedd naa loolu lépp man nañ ma yóbbu fi ñuy yóbbu ñuy sàcc ma tekki sama ndomba tànk def ko mais donc moom

la ca top d' ma ci def yoon ci bopam moma may ma def recours def na recours. deux mois deux mois sursis mu ko teg. waaw dedet waaw mais man du question raisonné ma en terme de mois ak en terme de peine mais dama ni li njub wax moy lolu ku ko def amna luñ lay daan. amna ay sénégalais yu ko defoon luñ ñu leen daan mais man ci li ma ci neex man moy e que wax nañ ni que dafay fen woo nañ ko ñetti yoon muy demander renvoi woo nañ ko juróomi yoon. ay avocat am déposé wuñ kayit déposé wuñu lu nuroog preuve donc man am naa dëgg yoon may na ma dëgg ci kawam te wallahi azim loolu moo may ngoog li am parce que man sama bopp nee naa amul benn rapport bu amee bu afnag bu ma jàpp na ko indi ma dem tëddi bu amee bu FBI na ko indi amul recelle waaw et puis jéemal la demal naan recel de document bu ñu demee ba journaliste toog ak man naan ma noo bu ko indee ñu ni recelle la

parce que mën ngay nax nit ñi nag mais ala kuliyaal dina egg fen foo xam ne yàlla suñu borom da lay wan sa kàttan gis nga boo toppee seytaane di nax rek parce que seytaane mooy naxaate seytaane moo wax yàlla ni ko dinaa nax doomu aadama je vais les séduire tel que tu m'as séduit dinaa leen ni nga def ni ni ni ni ni yàlla def ba seytaane doon ko jaamu seytaane nee na dina ut pexe yu mel noonu mooy naxaate gi ba nax doomu aadama léegi nag loolu yoon boobu boo ci nekkee da ngay gis say mbir di kawe rek yow da ngay jàpp ni que say mbir day gën a kawe et que mi ngi dox mais ku am seetlu ci am yaqin ni ko dëgg mooy mujj dafay gëm ni que yàlla da lay yëkkati dalay lay bàyyi ak seytaane mu lay yëkkati pour que daanu bi gën a metti tey Ousmane Sonko lan la mën a waxati waa Sénégal lan yow nga taxaw ci réew mi yëpp ni yor naa rapport taxaw ci réew mi yëpp ni xam naa xamuñu fi may jëlee ki may wax ñoom xamuñu ko lépp mi ngi ma téye sama loxo nga war a dem procès daal ni caaxaan yi yëpp dinaa ko arrêté ndawu Sénégal kaale ñu xeex dëgg lépp mi ngi nii suñu loxo nga dem ñetti yoon munoo sax génn këyit utoo leneen lu dul di jéem a ay tappale damaa feebar sotti nañ ma damaa def lii. ñun ñëpp ñu gis ñu ko loolu ay tappale loolu loolu yëpp passé na. non même bu passé dafa am njàngat buñ ciy jëlee mooy ci ay fen ak ay naxaate nit waru cee mën a mbarke réew mi ba nit ñi di ragal naan noo jàmm ak lélép bu dee musiba lay indi sax xeex fen woowu moo gën a dagal ana ñi doon wax dañuy sàmm jikko yi nit a ngi nii ku doon ànd ak yéen ñoom naan leen dañuy sàmm jikko yi tey tribunal wax na day fen lan lañ wax ana waa Jamra yi nit a ngi nii ku doon wax ni que euh, kilifa la dafa bëgg a yor réew mi fen na lan lañ wax ana xale yi ci dee dee nañ ci perte ca lu mel noonu xawoon na fay am mu wax leneen donc njàngat bi mooy nañ xam ki ñuy waxal kan la ci ay naxi kese kenn mënu cee nax réew mi mën ngaa këf nag xelu nit ñi këf cofeelu nit ñi ci yi nga yërmande ak ak ay tappale mais ala kulli al du yàgg parce que lu dul dëgg du yàgg. monsieur le hmm. yooyu yëpp passé na. Hmm. bu yooyu yëpp passeegul parce que des na deuxième mi-temps. non monsieur le ministre da ngeen war a bàyyi nag. non def nañ appel. waa léegi te dañuy dem appel. non monsieur le ministre ci yàlla. waa xaaral rek xam nga def ngeen. appel yow ustaas bi toog déggoo ko mu may laaj naan ma kiiw alxuraan yi comme que moom ci yàq la dañuy jël ci alalam jox ñiy defar alal jooju man utuma ci dërëm bëgguma ci dërëm. man yàlla ma ngi sante yàlla alhamdullilah yàlla teral na ma ci xamna ni yàlla teral na ma et maa ngi koy sant soxlawu ma ñaar dërëmu Ousmane Sonko mais li yàq ci rew mi bari na bari go xamni lépp lu mu meuna jël ci mom def ko ci barab yi ñi défaré jikko yi ci barab yi ñi tabaxé sénégalais yi wallahi azim dina ko jël def ko fa bu mako ko jël bu mu mënee jaay limu am lépp jox ko daara yi daara yi nak ñi nga xamni dañuy lal ci. ci dëngu xale yi maa ngi for ci wéwu bay ñu ne da nga bëgg saisir kërëm mais déggoo li ma la wax. waaw non maa ngi fer ci weewu béy ñu ne da ngaa bëgg saisir këram. foroo ko ci weewu béy ci weewu nax nga ko fore dëgg la lépp ay oto lépp lu ma mën a jël ci moom dinaa ko jël ci moom. mais ça ressemble à de l'acharnement. c'est pas de l'acharnement li mu yàq bari. non mais boo nee bëgg naa jël këram mën bëgg naa jël këram bëgg naa jël otoom lépp lu ma mën a jël si moom. ça ressemble à de l'acharnement mais c'est pas non c'est pas de l'acharnement tu sais xam nga nee naa la encore une fois man même ci opposition bi nee naa la xarit yi ma gën a am ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ñu ci ëpp ci opposition bi lañ lañ kuñ ci dajeel doo foog ni sax ni que kii parti bee la bokk parti bii la bokk parce que dañu bokkul xalaat rek mais àddina day dox nga ciy soxla nit mu lay soxla ngeen séq demalante bokkuñu xalaat kii Idrissa la àndal man Macky Sall la àndal kii Tanor Dieng la àndal xalifa la àndal man Macky Sall laa àndal mais buñ gisantee yaa du respect nee la man am na ñaari nit muy mbay Dione bu AFP ak Barthélémy Dias on a partagé des moments yoo xam ni gëw ma ne ci biir àdduna am na lenn lu mën a am ba yàq loolu parce que man dama gis xaw ma ñoom de ban gis-gis lañ am ci man mais ñoom ñaar dama gis seen taxawaay ci bi ñuy xeex ci démocratie ànduñu woon parti mais ñun ñëpp ku nekk fàtte sa bopp ñu fixé objectif bi ñu am ñi bokkoon ci camp beneen bi am seen ngëm-ngëm taxaw ñoom Aliou Sow ñoom Ablaye Sow bokk PDS mais di défendre cause am taxawaay mais teewul buñ toogee dañuy waxtaan parce que ñun ñëpp ñoo bokk fañ jógee ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg donte yoon yi àndul mais mën nañ fi bañ a def lu ñaaw mën nañ fi bañ a def yëpp fi animosité parce que ñooñu au moins xam nañ nan la yëf yi dox mais li bon animosité mi ngi commencé ci yëf yi passé na waaw donc moom laa lay expliquer non nee naa la am man du amuma ci benn problème mais nee naa la li mu yàq moo bari Boubacar ci ay fenam ay bakkan dañ cee rot ci ay fenam dañ cee yàq alalu jàmbur ci ay fenam am na ñu bëggoon a faju fajuwuñu ci ay fenam am na ñu waroon a jàngi jàngiwuñu ca moom loolu ba mu koy wax alaa kulli xamoon na ni ko du dëgg mais alam nekk mu dëgër ci nit ñi ragal ko ko wax wala rus ko koo wax naa ñëw naan ma waa nañ indi jàmm na indi musiba du man maa war a dëpp moom moo war a dëpp parce que moom moo deful lu dul noonu moom moo taxaw fu mu war a taxaw moom moo sos moom moo waxul dëgg ci bi ñu nekk ku def lu dëgg dañ naan la yow yaa ko deful ku taxawul foo war a taxaw dañ naan la yow yaa fa taxawul ku wax loo xamul dañ naan la yow yaa xamul mais ci ban àddina lañ nekk ak ci ban Sénégal lañ nekk buñ demee ba mooy li ma la wax ministre toog fii xam ne li ñuy wax moom bu àtteewoo ci boppam rek ak lam xam ak nam doxale xam na ni que li ñuy wax mënul nekk mais du ko wax ndax da ngaa contre mais l'adversité politique tourne comme ça. Ouais, mais ça l'adversité politique ne justifie pas la haine L'adversité politique ne justifie pas le mensonge. L'adversité politique ne justifie pas des actes qui sont conformes à la morale. parce que y a Karim il y a Wade ana Ablai Wad, il y a ñoom maître Ousmane Ngom ana a nekkoon PDS ana y a ak Abdou Diouf def nga sa wàll après dem toog parce que yëf yi jaar-jaar la ku ci nekk bo jaaré fexel ba li ngay def nga tek ko ci siraatal mustaqim wala ci li nga gëm wala ci mujjug tal ga nga def ko niñ ko yoon tënkee boo tëddee nelaw donte nag yenn wax yi mën ta ñàkk parce que boo jiitoo dinañ la wax mais ñiy wax nañ xam ñii def nañu xam nit du def ci loo xam ni dara du ci dëgg ca balaa ngay bëgg dara demal nga xam nañ lay doxe du at yu néew yi moo koy wax de balaa ngaa toog di def sa mixage yooyu wala def sa émission boobu yow Ibou Fall heure boo waxee ñaari wax bo xamé ni xamoo ni ngay waxé ak Ibou Fall pour mu wax la ci. mu léral mu léral la non la nit wara def mais xamoo ba pare di wax di wax ba pare bëgg jité ci mandar ngay njit nekkul ci yow moy réew mom fan nga ko jëmale ak fi Sénégal tollu ku xamul mënul amul jaar-jaar ay waxi kessé tek ko ci ay feni kessé waaw mais amna jaar-jaar nak ban jaar-jaar. ah amna jaar-jaar. ban jaar-jaar il est il est il est le deuxième. sénégalais. Il a, il a eu 15%, 15%, 15%, 15 lors des dernières élections. il pèse très lourd. Moussa Fagnas, à mon 17%. Oui, mais, il, mais Mom, il a 15%. Il Amoul, oui. a 15%. de, de, de ville de Dakar. Mais à la présidentielle, il a eu 15%. Oui, mais ce n'est pas la majorité. Film a 15%. Il a 58%. Donc, qui a 15% Na jox qui 58%. Man ma jox 15%, mom mu jox 58%. kon yow lu muy diirante mbag ak Macky Sall da la da la da la la kii déedéet euh, métti wu parce que Macky Sall moo jiite ñi mu jiite am nañ droit critiquer ko mais boo koy critiquer critiquer ko ci dëgg bul sos bul wax lu dul dëgg bul wax loo xam ni xam nga ak fii réew mi toll 2012 fi mu ko jëlee ak fi mu ak fi mu ko indi nii magum jëmm toog ci télé bi mën a wax woy woy woy ah, lan la fi def ah, xaw ma lan te yow Ziguinchor bañ la dénk sax mënoo cee génn nit ñi ñii ñuy xëccool nii. bul diffamé bul diffamé non diffamé wu. non bul diffamé ah, déedéet non bul diffamé bul diffamé moom léegi ku ko def. non bul diffamé ku ko def fay 200 millions. bul bul diffamé déedéet. oui mais déedéet da ngay déglu ñamu nekk. non dafa teel déedéet déedéet. encore une fois mooy li ma la wax man nee naa la ba may uti yi dama def programme ni at bi buñ eggee ci at lii laay def buñ eggee ci ñaari at lii laay def. moom ba muy ut mairie bi ay monnaie locale la doon wax loo xam ne mënul nekk. burug la programme la quand même. ah burugam bi ak programme la. ba xanaa commencé gul kon. ah mais ata ngi nii muy liggéey de. jugé ndax dañ koy dañ koy. dañ koy kay xool ndax amul programme moom loolu xoolal sa télé bi ñi koy seetaan am na ñu dëkk Ziguinchor. Mhm. nii buub su waxee ni que dañ leen def mën na ubbil kii telem bi na ko ubbil waa Ziguinchor léegi nga ata ngi nii mu téye mairie bi mu ne local la leen digoon développement xaw ma lan mais même que boo ubbi télé bi pour Sénégal Sénégal sax dinañ juger bilan wu Macky Sall loolu moom mën na ñàkk waaw mais nangu naa ma bañu ma ñu jugé bilan wu Macky Sall et xëy na man li ëppoon njariñ ci wax bi mooy nga wax ma Macky Sall la la def ci courant bi Macky Sall la la def ci ndox mi Macky Sall la la def ci mbay mi jeunes yi ñuy wax Macky Sall la la ci def liñ ci def kenn mënu laa wax jéego yim ci def c'est-à-dire politique de jeunesse bi am Sénégal ci dix ans yi ni musul am dans l'histoire du Sénégal parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal benn nit ñëw nii nañ leen saytu lan mooy problème mu ndaw ñi ñu saytu ko objectivement gis ni que problème mu ndaw ñi liggéey la li tax mu nekk problème mu liggéey njàng mi njàng mi lu tax méngootul ak liggéeyu jamono mu ni d'accord léegi du ñu xëy rek raser lépp mais lépp lu ñuy defaat ci njàng dañ koy yóbbu ci njàng mu méngoog jamono ñu ni salaamaaleykum mu commencé ci njàng mu kaw mi ñu def réforme université yi investissement yi gën a diis ci état bi ñu jël 60 milliards créé USAID USAID mm-hmm. ah, li wàllu mbay la Amadou Mahtar Mbow wàllu technologie la donc mi ngi jubbanti jàng bi ñu ni déetawaay mu wàcc ci école formation professionnelle yi ñu ñu ñu déclenché processus euh, processus construction wu 17 lycée technique parce que xam na ni que ñëpp duñ egg université maa ngi dégg kenn ci ñoom mu naan non chaque Sénégal chaque année 250 000 jeunes ñoy un ñoy demander emploi wax na chaque année 250 000 emplois Mais lay demander mais un emploi la le bi président Macky Sall di exi li fi amone ci formation professionnelle yëpp ñent yi la banque finance maa ngi ko dégg mu nan ay problème stage banque finance communication assurance ñi def communication ndakaaru ñi fi def communication rek boo ko ci télé yi rek fess na fal la def

askan bi jànkantaloo tey ak suba ak gannaaw suba investissement yi ngay def dafa war a répondre ci loolu terre bi biñ koy def mais lan lañ déggul parce que ni Dakar xat na xat boo xam ni oto yi bari nañ bari il faut que am transport de masse buy mën a jëlee nit ñi ci banlieue bi ñëw tey di nga dem ci cent quinze mille personnes yi jël TER bi par jour ni leen TER bi amul njëriñ te koy mu jëm aéroport di nga dem ARTP Eh, di nga dem BRT bi di nga gis ni mi ñaata nit lay nar a mais investissement yu ay jeune ñoo ciy liggéey xëyu ndaw ñi mais aspirer wu leneen lu jeune yi nga xamni dañu am problème qualification recc 3FPT wala am formation de base bu ndaw donc ay problème pour absorber difficulté yoy mi ngi fi mais jàpp leen ni que depuis 1960 ba léegi njàng mi ay licence droit la doon formé ay maîtrise géographie da nga daan génn université seen waa kër jàpp ni que kii am na diplôme mais amoo benn qualification léegi da ngay génn su université am nga qualification léegi boo génnee université Sine Saloum boo amul liggéey mën ngaa dem ci projet ñu finance parce que mbay nga jàng mhm. boo génnee Amadou Mahtar Mbow technologie nga jàng da ngay développer say application start-up bi foofu lay jógee njàng mi ñu décentraliser ko ñaata ENO ñoo am ñaata kii donc yooyu yëpp am yow nga ni loolu lépp dara amu ki kii xamuñu dara defuñu dara sacc nañ xaalis bi. waa xaaral kii mooy tëj kii mooy def ben question nga def ben question ñu tej mais boobu war na ñëw ci ministère bi. parce que ministère bi mom la bëgg a jëm. ministère daf jëm leen ci tourisme ñu tëjee. daf ci am ñu bëri ñoo xamné ne. jëm leen ci tourisme ñu tejé tourisme dafa am ñu bëri ñoo xamné dañu interpeller par rapport ak ce ministère surtout. par rapport ak li nga xamné ben mais trois questions la ci am nak boobu kon ma tag leen. non ñaar rek doyna na baax. man ah, ministre dafay xëy. en toute modestie. oui.

ki may wax ñi may waxal ñi nekk Mbour biñ ma falee ministre du tourisme biñ ma njëkkee fal ministre du tourisme damaa ñëw ñu ne ma benn problème lañ am boo fexee ba projet banque mondiale bii nga xam ni def na fi ñeenti at ñu réglé ko mu réglé problème mu avancé de la maire bi takkal say bagage def na defal nañ la diplôme de satisfaction mais gëm nañ ni que nag yow moom ak say kii est-ce que dina mën a nekk ma ne leen fii ak juróom-ñaari weer bu démarré wul ma démissionné

parce que ki jaay keccax war nañ ko jox kiy jaay caaf war nañ ko jox ki fi am hôtel waxtaan leen ba juboo ngeen indil ma këyit ñu démarrer projet tey mbuur amaat na hôtelu mbuur yi tey bu tëjul yàlla ak projet boobu moo tax te man fekk naa ko fi ñeenti at mooy projet restauration wu kotu mbuur bi beneen bi ci topp man leen tourisme de masse la ñuy def am na ñoo xam ne bu ñëwee ñeneen ñëpp dinañ ñu topp man leen dañuy démarrer Pointe Sarène ñu ni ay nax la Oui, oui, ay dil la day naxate kërëb kërëb ci kàttanu yalla ma dem xam ki yor ki moom euh de ma euh, hôtel chaîne hôtelière de masse riou yalla def ñu xamanté ci kóolute ma ne ko kaa ñu commencer projet bima wax njëkkee wax fii ni que riou day tabax hôtel dañ ma don rétane non il est dans des rêves ci biir Covid bi la waji investir 250 millions de millions d'euros tey ku fa dem gis ko phase 2 bi dans un mois je me ko golf bi dans tout maximum un mois aussi ñu def délibéré et mu commencer tay tay yuy bëgg na ñëw donc ci suñu ci kàttanu yalla ci suñu ñak xam comme ni ñuy waxé dinañ fi créer 2500 lits supplémentaires lu double li Sénégal amone indépendance ba code du tourisme rek mo ñu déssé et ñing ci liggéey et waxtaan ak partenaires pour mu gëna créer cohésion moo ñu dese ñu dugal projet bi mu dem assemblée donc man ci wàllu tourisme jàpp naa ni maa ngi def li ma war a def mais nit ñi xooluñu foofu ci li may def ci politique moo leen gën a la ñuy ëpp li ñuy teg ay bët. Ah. mais sama ma deex ma jeexalee foofu. muy Lac Rose. Mhm. Lac Rose ku ne gis na nu mu mel ak taxawaayam. mais tey aujourd'hui ak li nga xam ne moom moom la ñu jël ndox bi. Mhm. di ko fa déverser mu commencé di am ay difficultés ba ñoom interpellé nañu ba am entreprise. Euh, ci euh, télé bi alors ban politique nga def euh, nga bëgg def foofu wala nga taxawé fofu pour que ñom sen solution am sen jafé jafé non non Lac Rose du ministère du tourisme mo am ay problème en fait environnement la. parce que bon euh ati ñu weesu ndox mi dafa wañé ko won légui ñuy tabax dem ba tabax ci place ndox bi donc comme que ndox mi dafa commencé waat ñëw ndox mi ñëwaat bo ba menacer sax réalité lac bi. donc mais waa environnement ñi ngi xool mais ñun li ñu mën pour jàppale hôteliers yi nekk foofu mooy peut-être réarticuler euh, crédit hôtelier bi pour xool nañ lañ leen ci jàppale et ñi ngi ci parce que bon xam naa ni foofu moom acteurs yi mën a ñoom waxtaan nañ ci parce que waxtaan naa ak euh, président Racine si ak euh, ak sama nijaay Sow bu Palm Beach syndicat patronat bi nee naa leen léegi ñu mag ñi kay wax dëgg yàlla ñu ñi nga xam ne dañu soxla ay milliards yu bari ñooñu yàlla may na leen ba ñuy soxla ay milliards léegi kay crédit hôtelier bi li ci des nañ bàyyi ñu jàppale ci ñu ndaw ndawaan ñi ak surtout ñu ñu nekk ci à l'intérieur ñi nga xam ne boo leen joxee deux cent millions au moins seen hôtel normalaat seen campement normalaat donc euh, je pense que pare nañ président crédit hôtelier bi ak secrétaire général bi ñu ngi ciy liggéey et que ci fan yu néew dinañ dinañ kii mais ñu nekk Lac Rose quand même priorité lañ mais wax dëgg yàlla nag ñi ñu gën a teg bët mooy ñu nekk à l'intérieur man ñu ndaw ñi lañ ma sant ma gën leen a jàppale may da euh, uh-huh. nga euh, uh-huh. fi nekk depuis 1970 ba uh-huh. a a fàtte ba déedéet man heure bu ma fi ñëwee nag man ñaari yoon yi may nekk ministre du yëpp ponkal yi laay jàppanteel man ñu ndaw ñi laa gën a laa gën a laa gën jox bopp mhm. parce que dama jàpp ni que ñu ndaw ñi quand ñoo gën a soxla ndimbal parce que hôtel yi ci bari yi nekk à l'intérieur dañuy am sax problème mu titre ay délibération la ñu am délibération mënul dem banque mënul leb mhm. ñu nekk fi Dakar yor nañ ay titre mën nañ teg seen i titre banque yi lebal leen mais ñu nekk foofu yor ay délibération yor ay hôtel nga xam ni euh, ay gagne-petit lañ mhm. man jàpp naa ni ñooñ ñoo gën a yelloo président nag def na am na taxawaay ci tourisme bi hmm. parce que Covid bi wax dëgg yàlla relance bi te na yenn hôtel yi donte tey jafe-jafe yi am hmm. donc man fi mu nekk nii nañu naxanteeg ñu mag ñi rek hmm. ay ñoom racines yooyu nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla amuñu problème mu dépense ñu muñ rek at mii nii ñu jàppale ñu ndaw ñi eh, léegi euh, tourisme ba léegi parce que yemul rek ci hôtel Sénégal dañoo am loo xamante ne bii ñun rek ko am en fait boo weesoo Màkka xew-xew yi gën a mag ci àdduna boo xam ne nit ñi dañu jógee fu nekk di fiy daje. Mhm. Sénégal nga ko am. Mhm. Euh, tourisme religieux est-ce que bokk na ci programme bi déggoon nañ ko ay junj mais doxalin dafa mel ni ba léegi des na. mais xam nga tamit wax dëgg baax na. Ah. tourisme religieux contenu bi ngay jaay pour que nit mën a ñëw visiter ji. mais bu fekkee ci ay màggal nga ko teg ak ay gàbbu c'est pas rentable et gars yi duñ dugal seen xaalis fu rentable Touba ku fa tabax hôtel perte nga. parce que Touba li ñu leen màndargale mhm. mooy gan bu ñëwee da nga koy dëkkal jox ko mu naan jox ko mu lekk du jënd dara mhm. c'est gratuit ñi fa tabax kër ñëpp Touba rek ngay dem di xëy di am ñuy teg boolu ceeb ki di saraxu ñi ñi kaa leen lekk parce que loolu la doctrine bi wax boo demee ci Tiwaawan même chose boo demee Kër Baay Ñas même chose donc foofu ku fa tabax hôtel perte nga parce que foofu wootewaay bi du ñëw dëkk fay

Mamli mamu explique, expliqué jaar-jaaru euh, suñu suñu mam euh, El malik ku ci nek nga wax nan la nekkee woon ak Colombie, tourisme de mémoire lay nek et dina am fenn fu muy gën a parce que tay këru diine commencé nañ développer ay bibliothèque mm. tay un chercheur buy ñëw mën na dem Touba parce que amna bibliothèque talibé traduire nañ ko ci langue yépp tourisme de mémoire boobu ngay ngay wute na ak gore bi nga xamni bo boo samp hôtel ku ñëw da ngay dëkk après nga won ko fi moy maison des esclaves mais tourisme religieux concept bi il faut le matérialiser hmm. mais dem Touba di fa tabax hôtel mom da ngay perdre dem Tiwaawoon di fa tabax hôtel Touba la dëkk motax <laughs> mom mi xamna ni Touba la dëkk motax Touba la dëkk yow bo gisee tay kuy dem Touba hmm. bala sa xol a sedd rek nga ne ko kaay dal sama kër waaw donc

pour nga mën a tàggoo ngi leen di sant bu baax di kontaan ci li ma ñëw fii fekk fii baaba ak sëriñ bi waxtaan bi neex na trop man j'aime bien waxtaan bu démocratique et jàpp naa ni ñun ñëpp nañu liggéey pour que réew mi am jàmm ñun ñëpp nañu liggéey pour que réew mi wéeru ci dëgg ñun ñëpp nañu liggéey pour que réew mi nekk ci dal bu dee ay jullit lañ nañ gëm ni que yàlla mooy joxe bu dee ay républicain lañ nañ gëm ni que sénégalais yi ñooy tànn ñi leen ñu jiite ñiñ tànn ñu bàyyi leen ñu doxal ñiñ tànnul ñu préparé wu pour que beneen ñu tànn leen mais lépp lu ñuy wax nañ ko teg ci dëgg nañ ko teg ci xam-xam ñu bañ ko teg ci ci parparloo bañ ko teg ci ak mbañeel bañ ko teg ci ak jubadi bañ ko teg ci ak naar féq

رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو السلام عليكم بوك تيليسبيكتاتوري ني لين دي غرم بو باخ باخ تي ان غين اندك نيون تي سوني اي بروغرام تي اي تي في ني دالال لين تي خيو كور كوم ني نكوي ديفي تي ويرو كور بي دي نان جيل ليب لو خامتاني ني ادوم ادم بي دي نكو مانا جيفانديكو تي بير كرم ني دالي كو كوي سياري امبوكي ني غي في تي اتش لام غران يوف سي سي مو ديسامبر مو ديسامبر نك نيك بي دي جي جام هولدينغ ان ميم تون نيك بريزيدون ا ار دي تاي موم لا ني دالال تي خيو Dior fas yéene ak moom waaye dañ koy dalal maa ngi lay nuyu mon frère di la bëggee bu baax a baax. maa ngi lay fay sama xarit Billy di la nuyu di la jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ni kii ni mbégte la ma dalal leen fii sama bureau pour waxtaan ak yéen si xéwalu koor di remercier aussi waa ITV soit buñ porte si di remercier aussi équipe technique bu nga ànd képp ko xam ne mi ngi seetaan ITV. Euh, alors euh, Moda ñu ngi lay fay itam bu baax euh, tey ñu dalal la ci xewlu koor alors Moda Samb bu ñu ko waxee xam ne ne da nga yëngu ci wàllum politique bu baax a baax nga am en même temps entreprise bu ñuy wax jàmm holding alors naka ngay dundee sa liggéey ak weeru koor bi. Euh, defe naa ni kii ni bon loolu moom mbégte la pour ñu wax si sax ndax euh, ñun ñëpp ay jullit lañ ñu nekk si ay taaliba Seexul Xadim wax ni ki ni kat ñun donc kon koo boo daf ñoo war mhm. lu mel lu mel ni ki ni nag weeru ramadan moom lu ñu koy dundee mooy dañu gën a yokk def lu baax dañuy def lu baax sax mais dañu koy gën a yokk di wax ni ki lépp lu ñu doon def benn dañ koy ful yokk ko ba ba vingt wala yokk ba trente ñoo xam ne kii bu ñu xëyee ñu ngi dimu ci suñu bureau comme comme ni ñu fekkee di liggéey suñu liggéey soit ñu ngi si suñu chantier ñu ngi si le terrain wax ne kii aussi kon def lu baax mooy si côté politique mooy côté social baax a baax tama nekk nit ko xam ne ngay yëngu bu baax a baax a baax a baax ci social ndax xam nañ ne que chaque année da ngay dajale handicapé yi foofee neen ci kaw nag mhm. di leen di leen bégal di leen defal ay ndogu yu yu bëree bëri bëri macha allah hôpitaux yi prison yi bay woo dara c'est-à-dire Euh, loolu noonu nga xamante ne ni euh, da nga koy def lan moo tax nga taamu ci ñi nga xamante ne itam moom mooy handicapé yi handicapé bi moom soit ren moom ñun ñëpp ñoo ko jëloon à l'unanimité parce que dañu wax ni kii ni ñoom dañ leen beddi ndax boo xoolee boolewul leen dara si benn organisation ñun ñu am suñuy tànk am suñuy cër dem di ñëw ñun ñun la affaire yi di dëgër si ñun asamaan nag suma handicapé yi mhm. ñu ne nag ni nag atum ren bi 2023 bi dañuy jël suñu ndog yëpp ñoom ñu partage ñu def ay ndog partage ak ñoom mun leen wax leen kii ni kat ñoom si ñun lañ bokk ñun aussi si ñoom lañ bokk ñoom ñu xam suñuy suñuy doléance ñun ay porteur de voix lañ te yàlla may nañu kat bu ñu waxee ñëpp nañu déglu te fu ñuy jëm aussi mën ko lijjanti ñëpp dinañu dinañu bàyyi xel te loolu aussi bu ñu leen ko annoncé mu nekk mbégte boo xam ne ce sera une première fois mu am Kaolack Sénégal sax laay wax te idée boobu noonu maa ngi si remercier képp koo xam ne mi ngi liggéey ak man si sama côté mouvement politique beeg yooyu yëpp wax ni que ni handicapé nañ ñu xaar ñi ngi ñëw Kaolack pour mun a defandoo ak ñoom dayandoo ko partagé kon euh, dañuy ànd ak yow rek nga wax euh, tey xewlu koor yi fan lañ la koy yóbbu waaw dañuy demaat université Cheikh Anta Diop di wax ni que ni dafa nekk benn temple boo xam ne dafa ma lu bare bare bare bare bare ndax euh, weeru koor dafa doon fekk mu nekk université mu doon metti trop ci man pour ñu ndogu moo tax à chaque fois bu ndog jot rek ñoom laay njëkk a pensé ndax j'ai fait là-bas sept ans yoo xam ni bu ndog doon jot souvent da doon compliqué bu baax a baax a pour ndog 19 heures dañuy rang 16 heures 17 pour mën a jot suñuy ndog kon donc def na lépp lu ma amoon rek damay dem bàyyiwaat leen xew wax leen nit ki ni kat li ma jaaroonu métti dama muy ñëw ñu gën ko yombalaat wax leen nit ki nii ñu ngi ñëw léegi-léegi si ñoom ak ITV ak Billy Bosso ci xewalu koor Ramadan رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا رمضان

يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان jërëjëf Billy Borsova kenn du yow di ko gërëm bu baax a baax di ko sant moom Billy Borsova di am mbégte ci kooku nga xam ne moom moo di monsieur le directeur général ARD monsieur Moda Samb jërëjëf ci waxtaan wi am na solo jëf ji am na solo taxawaay bi am na solo léegi nag dañuy tëj ak soxna Astu ñu daal di barkeelu as tuut rek daal di ñëw di li nga xam ne moo di pain de mie

jënd sa laaj jënd poobar kaani xorom pêche chinois naana moom nga دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجاء رمضان رمضان رمضان أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأمان تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان يا ربي لي أحمد ارزقهم الجنة عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان tey nag lii laa leen indiloon sandwich thon laa leen indiloon tey ci pour ngeen xëddee ko yomb na togg te neex na ci xëdd te gaaw na digérer. Ramadan ya Ramadan ya na. merci beaucoup merci beaucoup euh, soxna si ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant euh, Astou Sow kooku mooy madame Modou Diouf madame juuf ñoo ngi lay gërëm bu baax di la sant euh, di kontaan bu baax a baax a ci rëgal bi ak xëdd bi macha allah euh, di gërëm bu baax a Baba di gërëm bu euh, suñu xarit le ministre mambay di gërëm tamit ki nga xam ni moom moo suñu xarit yi nga nañu di bu a di imam mbokk xaritu yi dig ak gan ci ITV ci Iftar ngeen رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشاء